de, ripostes, donc euh, en commençant par le, gouvernement euh, actuel du Mali, et soutenu par son peuple et par aussi euh, les populations du continent africain, un peu partout, les gens s'indignent contre ces sanctions lâches et méchantes de la CDAO. Alors, ce qui fait que ça a commencé à, à tisser une toile de solidarité pour euh, se mobiliser afin de pouvoir dégager euh, la France euh, en Afrique, ok, et permettre aussi de saisir l'opportunité pour en finir avec ces organisations, ces syndicats de chefs d'État, alors qu'ils sont là pour servir le, le blanc et au détriment de leur peuple

donc euh, dinañ ci wax mais dinañ wax ci li nga xam ne mooy lu ubbalee actualité bi mooy euh, CEDEAO euh, sanction yu mu jël contre le Mali mu ànd ci ak UMOA mais ci ginnaaw loolu yëpp da nga gis ni loxo tubaab bi moo fa nekk bu leer nañ muy France donc tey ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew yi CEDEAO yi seen kilifa yi ñu dajee Accra ci Ghana jël sanction bu mel ni euh, bëgg a euh, xeex lépp li nga xam ne euh, donc muy dignité muy honneur donc peuple Mali bi ñoom dañ ci taxaw pour jéem a xeex askanu Mali ak gouvernement Mali pour wut lu neex Macron ak français parce que gis ngeen ni Macron mi ngi jënn di donc appuyer la cdao e ak l'UEMOA ci seen jëf ju salté jooju waaw loolu mooy rek toujours rek li leen doon wax rek esclavage bi euh, ngi ci forme la andi xam nga bu ba doon def euh, violence euh, ci esclavage par force jaay la doole tàkk la yóbbu dugal ci ay bateau ku ci mën a rëcc nga ku ci yow dund la jox la requin ci bi di dem ñi forme colonisation baa ngi fi dañ ko mooy mooy mooy li ñuy les chefs de qui euh, dëkk Afrique Madame, euh, au fukki accord ak juróom ben yi yi France ak deuk yi nga xam France mo len coloniser donc te Mali bok ci donc ci tay problème bi bo ci gestoo ci bir accord yi da ngay gis ni jafe-jafe bi Mali am euh, am na accord bu ko tënk ci bir te li andi euh li coow yeb mooy lan moy bañu tojee ba France songé libi toj libi bamou mu euh, euh, libi rek ci Sarkozy bamou mu libi rek ci am donc ci le xeex bi am mou ko rek tas armée tas partout ci Sahel bi euh, tas donc ñu infecté le Sahel partout déstabilisé da nga Burkina Tchad ak tout ça nous Mali ñu ngi ci ay problèmes djihadistes te loolu yëpp lépp du kenn kenn tegu ko kudul tubaab bi la pexe tubaab bi la France la moo ko pexe pour mun a euh, dugg ci benn pàcc bi nga xam ne ci Mali war ko mun a xaaj euh, mun a teg ñeneen ay waa fipp yu fa nekk pour mun a euh, aussi tamit jot ci koom-koom bi nga xam ne moo nekk ci suuf Mali donc loolu histoire bi yëpp foofu la foofu la jógee donc pour ñu mën a egg foofu dañuy créer conflit créer conflit jéem a teg seen loxo ci ci ressources naturelles dëkk yi ci jamono bi ngeen di euh, euh, xeex ñoom ñi ngi ŋàcc euh, ressource ba nekk ci suuf si moo tax gis ngeen jàpp nañu France benn conteneur boo xam ne ay or la ñoom ñi naan ay ndox la ñu jàpp leen flagrant délit nangu affaire bi même scénario à mon Irak parce que ba États-Unis de ba xam ne léegi lu ko desee réserve am

mais arme de destruction massive bo ñi jiiñ Saddam Saddam Hussein dañu songu ko ci da ngay gis ni ñom ñi buñu ñu affaire du leen parce que ñom ñoo Saddam Hussein muy xeex ak Irak Iran ñom ñoo Saddam Hussein ci bi ak ok Irak Iran donc américain ñoko donc tay ñooñu buñu ko rek euh, ku ci ak sa xel rek daanu ci piège moo ñi ñu bëri dañuy daanu ci piège bu ci dëgg sarax bu nga xam ne moom la américain teg jaarale ko ci arme de destruction massive ndekk booba alal ba lañ doon wut mais pour ñu mënoon a jot alal bi il fallait ñuy éliminer Saddam Hussein même scénario la éliminer ko ba pare ci boobu jamono ñi ngi xeex ñoom ñi ngi manque ci pétrole bi ñi ngi ŋàcc ci pétrole bi loolu moo fa nekkoon quoi même topo même système la euh, France teg ak Sarkozy Saddam Xadafi euh, xam ngeen ni Xadafi moo financé campagne Sarkozy parce que Sarkozy de femme excédent qui budget de campagne euh, donc il y a des ko qui ont ñëpp des Kadhafi en France dans le fu de ay xaymaam la di recevoir gagner. donc les stratégie pour déstabiliser euh, euh, Kadhafi c'est booba ñu Mali parce que alal ga que ci Mali ñoom ñu qu'est-ce qu'il faut faire les occasions opportunités opportunité euh, comme Kadhafi commencé à Euh, gësëm waa ji pour di ko laan waxu campagne euh, xaal ñu attaqué ko toj Libye ba ñu tojee Libye nag ci la gaay tas gaay tas dugg kon ñoom loolu dañ ko yàgg xalaat dañ ci yàgg xalaat seen stratégie la donc xalaat boobu ñu stratégie daanaka boo koy jàng boo ci am jàngat seen stratégie la ñu bëggoon seen objectif am nañ ko parce que jéem nañu dugg Mali parce que ba tojee affaire bu tojee rek bu Libye tojee gaay ñom sen jihad yi nga xamné ñom ñi la ñu installé leen ci côté bobu nga xamné ci problème Mali amoon conflit rébellion ñi installé len ci côté bobu ba pare di alimenté rébellion euh, euh, euh, jihad yi parce que France mo nek ci ginaaw di len jox ay gànnaay wa nak ngeen nek fo xaw ma ñaata xaw ma mat fukki at xaw ma ñaata at yow ba mënu lo régler problème euh euh sécurité Mali donc nga gis ni gaay di dem di dem di dem hein coûter na fi cher ay chef d'état malien yo xamné ne euh, perte nañ leen fi atété tëbal nañ ko ci lolu ci conflit boobu euh, keneen ke la ñëw ñu tëbal ko ci conflit bi donc ay coup d'état répétitif répétitif répétitif be Assimi Goïta ñëw top donc bobu Assimi Goïta mu ñim ñi nek génération yo xamné ken formé leen France parce que fofu la foofu laay la article fukki euh, poñ yi nga xamné mo teunk France ak dëkk yi ñu coloniser foofu lay parce que problème bi fofu la parce que xam nga lu tax boo leen demee ci fukki article ak ben yi nga xamné mom la France teunk de yi mu colonisé dina ci am ben poñ bi nga France mu ngi un sen soldats sen militaire, militaires sen généraux man malen len di former man France ba pare seen militaires yi ak seen armée bi ma len euh, di jox ay matériel de guerre ma len di jox ay matériel de guerre di fournir donc ngay gis ci

rapidement ñu tëbal président bi euh, ñoom ñu ñëw intervention teg fa euh, seen euh, seen seen pion bañ fay teg donc di ba pare di continuer di mën a ŋàcc alal réew mi loolu moo am scénario boobu moo am Tchad moo am Tchad ak Idriss Déby Idriss Déby il a été assassiné dañ ko assassiné assassiné ko ba pare tëbal ko ñëw introniser doomam voilà euh, perturber processus bi de transition bi imposer doomam Macron dem installer doomi Idriss Déby voilà teg ko nag benn marionnette guignol mais boo xoolee analyse euh, euh, donc politique euh, doomi Idriss Déby tey fu mu ni la France donne yakar ci mom ndax dina ko doxal comme nous mu koy doxalee am ci chopité parce que la bàyyam tracé bàyyi fi fii te ñoom ñi am ñaaw ñott ni Idriss Déby mi ngi commencé riposter contre France loolu la doom ji nekk di doxal donc Tchad mu ngi ci beneen problème parce que doom ji euh, fañ ko bëgg a guider doom ji mu ngi ci jënd di dem di topp li baay ji baay ji tegoon donc même scénario boobu moo am euh, comment dirais-je euh, Mali ba ñu tëb ba ñu nommé ministre boobu président boobu nommé premier ministre armée bi dellu ci caserne ni ñu gis ni waa ji ni muy doxal ak ñoom lañu la bëgg ak lañu gis nekkul benn waa ji mi ngi commencé tayle euh, Mali mais ci la ko Assimi Goïta dëbal moom itamit récupéré ko teg waaw récupéré ko teg léegi ci nga dégg Macron naan waaye ay coup d'état en euh, en trois coup d'état tentative de coup trois coup d'état en une en une année jóg na fi parce que ñoom la ñu bëgg dañu bëgg euh, benn président bu fay nekk Mali mu nekk marionnette ñu koy manipuler di ko téléguider lu ko neex ah ñu teg ko di ko ruux muy def sen ligue quoi donc mais la faté moy euh génération bi nga xamné tay ñoy ñooy euh, kilifa yi nek ci armée bi ci l'armée Mali ñooñu formé wu ñu leen Saint-Cyr bu France ils n'ont pas été formés en France Saint-Cyr russe mo len formé russe la à fa la len formé militairement ñu dellu donc da ngay gis ni euh, euh, mentalité bi ñuy am du bok ak ñi nga xam ne français ñoo leen formé donc déjà euh, rupture am na ci accord yi parce que ci accord yi fukki accord yi nga xam ne moo tënk France ak réew mi yeneen réew yi am na ci benn poñ boo xam ne ci la France ne man maay formé seen généraux yi man maay former seen militaires yi man maa leen di jox euh, euh, euh, jumtuwaay amu leen droit dem beneen dëkk ñi di France am leen droit dem beneen dëkk mu leen di Je ay fetal man France maa leen di jaay gànnaay fetal France mu ngi ñuy man di former def xam-xam contrôler donc boo leen demee ci fukki accord ak benn conflit bi Mali. Euh, euh, fukki accords ci amna ci benn poñ bi nga xamné euh, bokk na ci li ani Mali parce que ñom génération ñom Assimi Koïta ñu koy saluer de passage le président malien de transition ak mom ak équipe yëpp vraiment gatché ngalama ñom ñi ngi tek ay jalons yi nga xamné ne na jënt ci dëkk Afrique yu bëré tay mom la Afrique soxla la libération parce que dañuy né Afrique est libérée l'Afrique n'est pas libérée légui nak processus de libération en Afrique bi mu ngi ñëw ci 21e siècle parce que bu ñuy Centrafrique kan moi que libéré D'abord, abord centrafricain ñoom ñoo de décision Facile de libérer seen bopp di France andi fa ay ay rebelle ay jihadiste installé leen foofu gars yi di dem di dem ba tuuti ñi nasaxal dëkk bi nga gis nii ci la ñuy def appel russe russe ñëw ak Wagner ñu fat libérer rapidement, euh, rapidement adresse, euh, euh, Centrafrique voilà dàq euh, euh, jihad yi fa nekk écarté écarter France samp fa delloo euh, réew mi akham xam tey Centrafrique libéré nañ ko mu ngi ci politique ok euh, de diversification accrue Russie ak yeneen dëkk yi ñu ñëw ci Paul Kagame Paul Kagame gis ngeen li fa def génocide bi ñaata nit ñoo farat ñaata rot il a fallu que Paul Kagame qui est un colonel dans l'armée dënn def rébellion dugg ci àll bi voilà former rébellion bi xeex xeex xeex ñoo jël implanté wu mener politique pour libérer euh, Rwanda Dakh France bañ nañ France kalama France la langue française qui du ko Rwanda Tay Rwanda exemplaire qui qui Afrique parce que de dafa libérer boppam ok euh, anglais lañ fay làkk kenn du dictel intérêt rwandais le la Paul Kagame di en un temps record Rwanda bi nga xam ne ñëpp koy Rwanda boobu moo ñëw le premier pays africain waaw parce que Afrique du Sud moo ko mais est-ce que est-ce que Afrique du Sud nous Rwanda nous mu cleané nous nous setee non la Afrique du Sud di setee il faut ñu xool ko parce que aussi boo xoolee statistique ci économie bi Paul Kagame tey fan la jëm tey même même hier euh, euh, euh, kenn du ko importer flipper yi amul Paul ci Paul Kagame industrie yëpp xale yi tey xale bu ndaw Rwanda ordinateur lay foyee jouer foyee donc mon fu mu ñoom préparé nañu seen futur seen génération assuré nañ ko tey même seen or bi ak seen koom-koom bi usine la tey ñoom ñooy raffiner seen or bopp ñoo koy raffiner gas ko raffiner ko exploité ko teg ko te or mooy garantie xaalis devise devise du pétrole or la ñun Sénégal depuis 1900 bi ñu Sabodala ba léegi kenn xamul lu jënd ci or or bi alal bi gisuñu ko donc Rwanda après Centrafrique Rwanda libéré na boppam tey. Mali processus bobu français après buñu ñu installé nek fofu di extraire ressources bi xex bi exploité explosé donc génération bi nga xam ñom ak dem dem dem leen former Russie ñom dugg France commencé yuxu France commencé à commencé démissionné dello ay ay ay c'est euh, base foog ne menace la euh, que ga malien dinañu dellu malien yi gën ci accélérateur bi ñom ñi gedde dem ñom ñi gedde ñi ne leen bon débarras mais fa la muju France xamné moy perte mu daw suyaat ñoo xam ne non finalement ñàkk jom way damuñu gis lañ fi le ministre des affaires étrangères français no damuñu xam nga ñàkk jom France du dem France du dem bobu gaay yi ko wax bismillah gaay di continuer tey processus baa ngi nii Mali mu ngi dog bu mu njàm français est dem ba xam ne nañu ñi bayyi seen kii boobu slogan ba andi Balkan dem andi pays union européenne duggal leen ci euh, deal bi complot bi voilà pour na dañuy pour jihad yi parce que ñom France xex nañu dugg na fi jënd fi ba les États-Unis d'Amérique ñoo en appointe xam nga voilà bëgg utiliser les institutions internationales pour nous, mais yalla Russie taxaw waaw Russie taxaw Wagner yi dugg si donc déjouer tous les stratégies de l'Union européenne la France et les États-Unis d'Amérique ñi xam ne gars yi ñàkk nañ fu mu ne nii ñi andi ay tentatives Mali riposté léegi pour ñu mën a pression ñi ne Macron utiliser say guignol quoi demal nga jëli say guignol quoi say xuusma ñàpp yi nga xam ne mooy euh, euh, les nègres là euh, au service du blanc c'est valet de la France là les Macky Sall les Alassane Dramane Ouattara les présidents donc euh, de la CDAO ak union jël nga nga voilà euh, lié ak li comme sanction Mali suffisé le peuple Mali euh, tek leen frontières yi suuf si jaww ak géej ken du def transaction ngeen embargo ko écarter ko les ne dana tax Maliens reculer reculer mais dañuy faté ni ñi fa ce ne sont pas formés par les Français ils sont formés par l'union les Russes Poutine mo fa nek ñoñu anticiper nañu déjà cette relation waaw ñom xam nañu fofu lañu jëm ñom ñoom Assimi Goïta xam na bu baax fa mu jëm peuple malien bi comprendre actuellement le gouvernement de transition ñom fa lañu jëm donc day neex a bu gesso gis peuple Mali bi ci gënaaw jeunesse bi population yëpp ak ne mu mu metti metti un les ñun ñi yow même bu ñu lek souf xeer ñun ñi yow donc loolu mooy euh, peuple bu nek fidèle euh, devant ses dirigeants mais day que le dirigeant dirigeant bi day que dirigeant bi nek nit ku honnête ku djub ku gëm bopam gëm réew mi bëgg réew mi donc processus bo bo ci mu yomb ci Assimi Goïta mu oyof ci régime bi parce que euh, régime bi dafa jub d'abord gëm s'en bop mën nañu atteindre objectif yi ñi def travail de masse informer population

parce que des armements armement superpuissance Russie moo leen que Vous du mon morom puissance mondiale première puissance mondiale militaire Russie. la Poutine première puissance mondiale économique, Chine la Et nous ñaar Chine ak Russie nous partenaires partenaire Mali actuellement Algérie ñoo en pointe Iran en pointe Arabie Saoudite ba bay donc nous gis déjà des alliés ci biir allié yooyu Mauritanie nee allié la du tëj frontière euh, euh Guinée Conakry nee du tëj frontière donc lima waxone waxoon rek abarkati c'est la cdao qui va payer les pots cassés qui vont laisser les pots cassés ak ñi nga ñun Sénégal bi nga xamné Macky Sall 200 milliards la am ci Mali parce que port bi Mali fa lay transiter mais par contre ci blé bi nga xamné mom la ki di ci 80 milliards la am Macky Sall asphyxié na déjà euh, mu ngi mu ngi sénégalais parce que tëj na frontières yi ñoom tëj nañu après séance tenante tëj avec effet effet immédiat ñu tëj frontières yi transaction bi nga xam Sénégal Mali ñu ngi koy sëkk mënatul dem sénégalais mënatuñ dem Mali maliens yi mënatuñ ñëw tey fu may ci information am sénégalais yoo xam ne dañ leen bloqué actuellement Mali mënuñu jënd parce que tëj nañu. Euh, euh, frontières parce que mesures yi ces mesures braconnières archaïques archaïque la dafa ak condition effet immédiat donc ça commence à jouer euh, des dégâts donc Sénégal fi nous ne nii ñun pour gérer fi parce que Macky Sall pas fii pour intérêt Sénégal ak sénégalais Macky Sall ñu ngi fi toogal mu ngi fi toogal tubaab yi tey ngeen Macron a fait frontière contre le Mali voilà la Macron jotee ak Mali mais muy le frontière ba mu euh, espace aérien pourquoi loolu day wane ni France mo nek ci ginnaaw moy pompé cdao ak ñom union UEMOA bi ak tous ces guignols là de l'union européenne mo leen dugal ci goutte ci xex bo xamné ñom ñoom ci am ndam donc ñom Macky Sall yëpp ils sont des gars pistonnés aujourd'hui euh, embargo bi on mu def effet ci Mali mais non mi ngi def effet ci Sénégal ak yenen pays de la cdao

loi yi nga la CEDEAO mais aussi pour nous dégager CEDEAO dañ Nous dégager parce que il faut ñu tas ko ñu dégager parce que c'est des guignols bo am ñu koy wax bo dëggee média Afrique Afrique média ni, ñu koy wax ni, nañu nañu joxe soutien solidaire ok mais action day ànd action bloquer paralyser euh, les les économies de tous ces pays de la CDAO. paralyser économie bi banam bo nañu

ok euh, sénégalais yi nga xam ne euh, ci trans trajet Mac Mali Sénégal la liggéey commerce jëndi marchandise ñoo fii jaay jënd fii yóbbu fële jaay transaction boobu individuel ba nga xam ne euh, ak sénégalais nu ñuy ñàkkee am liggéey Sénégal ñu bëri ñu ngi ci ci kon mënatuñu liggéey côté boobu tëj nañ ko quoi donc mu nekk li nga xam ne lu doy waar nga xam ne dañ ciy dellu si tey. mu nekk ci thème bi ñu ci war a war a wax deuxième thème bi mooy gis ngeen ni campagne bi ubbeeku na te coalition Yewwi Askan Wi mu ngi ci terrain bi euh, président Ousmane Sonko mu ngi sillonné Casamance demoon na euh, Kolda côté Sédhiou yooyu yëpp macha allah car accueil spectaculaire extraordinaire euh, dem na ba mu dajee Kolda ak convoi caravane commandeur Abdoulaye Bibou Diallo nga xam ne mooy ministre APR foofu mooy candidat foofu mais da ngay gis ni ña a sa ña ci convoi Abdoulaye Bibou Diallo bi dañuy jóg di di Sonko Sonko président Sonko Sonko mu nekk effet inédit parce que dee dëgg kenn mënu ko sul ah taq kenn mënu ko sul quoi donc que du di ovationné Ousmane Sonko parce que gis que caravane Diallo bi ak Ousmane bu ñu ak bu président Ousmane Sonko nga gars yi ñëpp di Ousmane Sonko sa nga donc l'on signale la mais mu dem Belengara Vélingara mo gagné euh, mo jël palme d'or une mobilisation exceptionnelle hein a répondu oui hein, au président Ousmane Sonko et au candidat de la coalition Yewwi Askandi mais fépp fu mu jaar rek euh, c'est une marée humaine depuis euh, euh Sindon Samin Adayan Goudom ñaa gis côté boobu yëpp gars yi dañ jënd fu nekk dañu jënd du ko teeru du ko sargal donc di ko wax ñun ñi ngi sa ginnaaw ñi ngi sa ginnaaw candidat bi kon man lañu mën nañu ne yaakaar am na ci euh, donc euh, région de Ziguinchor région de Kolda ak région de Sédhiou war nañu mën a euh, donc dundee yaakaar parce que ca la ñuy gis ci image yi bu fekkente lañu gis ci image yi naxuñu donc dinañ ko continuer alors ñi ñaan Euh, euh, euh, Abou Sow Abou Sow mu poste numéro bi épinglé s'il vous plaît Abou Sow numéro d'appel bi hein, épinglé donc ci ci comme ça ni bëgg ni ñu allo Alassane donc ñi ngi lay ziar di la jaajëfal di donc ak comment dirais-je prince. adam ñu ngi lay jaar euh, Mamadi Jatta yeen ñep ñu ngi leen ne ci waxtaan bi ak Badara Aliou Sow ñu ngi leen ne ci waxtaan bi yooyu euh, donc ñi lay ñaan nga épinglé euh, numéro bi Fatou Diabang ñu ngi leen ne bisimilah ci ci waxtaan bi bis merci beaucoup bienvenue donc ci ci waxtaan bi Mamadou Diallo ñu ngi lay jaar di la wax di merci bismillah ci waxtaan bi pap Tidiane Diaw ñu ngi leen di jaar di leen wax ni. Euh, merci bienvenue Sarata Badji euh, yooyu tamit ñu ngi lay siyaar di le de di leen bisimila ci bi euh, donc di rafet Mamadi Diatta yooyu aussi yéen ñep ñu ngi di ziar di leen ne merci Jerry ci teewaay bi ngeen tew ci waxtan bi amna solo ñu ñew joxante xalaat fofu di wax ne rek donc numéro baa Nonu, ok pour gars yi participer donc ci émission bi mën nañu woté mën nañ woote numéro baa ngi noonu euh, donc 00 euh, baa ngi noonu 46 72 91 40 311 pour participer ci joxe seen xalaat donc ñi leen sant di leen gërëm di wax ne rek euh, donc ubbi donc plateau bi parce que xam naa ni équipe bi ma àndal ñi ngi ñu ngi koy teewlu donc mu nekk li nga xam ne lu am solo la donc ñi def di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci liggéey bi nga xam ne euh, mom lañ nek di def et que donc euh, euh, voilà ñu man lancé équipe bi xool ni équipe mi ngi lolou lañu wara waxtan tay waye bu len waaye bu euh, président war na def suba conférence de presse invité ci presse internationale bi ak yooyu ñom ñep tout les consorts là ñu ñew suba dina def tenir ben conférence de presse achigan short mu nekk li nga xam ne pour wax ak nit ñi parce que gis nañu ni politique bi di nekk di demee nii te ña nekk di waxu euh, violence euh, di woote jàmm ñoom ñooy def violence actuellement ñoom ñooy andi xeex ñooy andi violence ci ci langue politique bi mais la ñu am pour wax sénégalais rek mooy ku ci nekk daal na nga góorgóorlu euh, jël sa carte te xam ne te xam ne le 23 dañu war a dem voté yi ñun ñëpp dem voter euh, aussi euh, il faut nit ñi xam nak lañu wara voter ku ci nem da ngay jël bulletin euh, ki nga nga bulletin ko euh donc nga jël bulletin jël enveloppe bi ci biir enveloppe del ko xol waaw ndax amul bulletin ci voilà nga jël sa bulletin bulletin bulletin allo waaw waaw mbokk mi maa ngi lay dégg way way bu yàlla ah allo waaw Chérif waaw euh, way depuis Espagne way Chérif may ma ma tëj ma waaw nga dugg quoi Allô, shérif Allô Allô, shérif Allô Allô, oui. Wa maa wa lay deug shérif maa ngi lay dégg yaa ngi en direct ci plateau bi. voilà euh, je vais essayer de m'exprimer en mandingue si possible. Oui, comme tu veux. en français. En français, après en mandin, oui, c'est bon. Oui. Oui. Ah ah. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mon frère, vas-y. Allô? Oui, oui, tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vous entends. Allez-y. Ah ah. encore, c'est

président ɗo fo mo à yaalo mone ɓe keri mm-hmm. ok oui voilà le ça message de lancé maintenant en ce qui concerne le problème euh, fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali vraiment j'espère bien que la population sénégalaise ne va pas accepter cela ah ça c'est grave il y a de quoi c'est quelque chose inédit mm-hmm. oui hein? oui je crois que toute la jeunesse africaine doit être solidaire pour défendre cette cause-là. On ne peut pas accepter ça. Si uh Sénégal. Comment, on va, comment acceptons, accepterons-nous ça Faire Fermer la frontière entre le Sénégal et le Mali. Ah, c'est inadmissible. Les Sénégalais ne doivent pas accepter ça. La jeunesse doit se mobiliser. Ouais. Vraiment. Ouais. Cela doit être une motivation de faire partir Macky Sall dès, dès, maintenant. Oui, mais nous, nous, nous, nous ouais, déjà, c'est une alibi. Ah oui. À partir de cet instant, on doit tout faire. Vraiment, ça, on a, des un motifs pour faire partir Macky Sall. Ah Comment que Macky Sall peut fermer la frontière entre le Sénégal et le Mali ah ah, ah L'économie sénégalaise, euh, l'économie, l'économie que j'allais dire, l'argent que le Mali euh, euh, fait entrer au Sénégal, il y a 2 milliards, et 22 milliards et poussières. Oui, oui. La France, c'est 45 milliards. Oui, 200 milliards. Oui. 200 milliards, c'est extra grave, c'est extraordinaire. C'est le partenaire numéro un du Sénégal. Oui. Ok, merci. Voilà, merci, merci, merci beaucoup. Merci, Mala, merci d'avoir appelé. Et donc, euh, vous êtes sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. Alors donc, euh, merci beaucoup pour votre engagement. Et je vais prendre euh, donc les gars qui sont l'équipe qui est sur le plateau. Je vais les prendre. donc, ouais, allô. Oui, allô. Allô, mais Émile. Allô, Émile. Waouh. yaa may dégg est-ce que. wow, lay ziar waaw waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar Émile ñu ngi lay dëgg di la ziar waaw. waaw ñu ngi lay ziar di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi teewee plateau bi via euh, les patriotes africains du Sénégal. Facebook bi ak ñi nga xam ne ñu ngi koy teewee si chaîne ASID YouTube bi. Euh, la chaîne des patriotes. waay. di nuyu ñëpp di di leen delloo seen wàccuwaay di leen naan dal leen ak jàmm comme ça ñu wéccee kon ñu ngi koy defee guddi nekk rek. Euh, dafa tey soo déggee yeewu askan bi. waaw dama dama gis waa Mali ñoom ñoo toll si yeewu seen askan. waaw exactly. ndax lii xew Mali tey dëgg-dëgg mooy yeewi askan bi maanaam keneen koo xam ne dafa jóge fële. ñëw hmm. di jéem a sàcc alalu askan bi. gouvernement bi taxaw temm ne lii bu fi amee. waay bëgguñu bund xatal bëgguñu occupé dëkk bi. gouvernement Mali taxaw ne mukk lii bu fi amee pol waa Mali dëgg dëgg Sénégal ñu ne waaj a yeewu askan bi mais waa wal Mali ñoom dugg nañu déjà seen procédure yeewu askan. ah ñoom jiitu nañu de Maliens yi. ndax soo soo déggee parti yeewu askan bi li ko sabab mooy lu ñuy fexee ba askan bi askanu Afrique yi tekkale ko li nga xam ne surtout Afrique occidentale française ñu tekkale ko fu mel ni France. waay. parce que pour mën a dem kanam ñu mhm. mën a tekkale ko loolu mooy premier acte bi loolu daf ñuy permettre ñu briser lépp li nga xam ne mooy onze accords yi nga xam ne france moom la ñu tënkee ba mais moo tënk ñëpp onze accords yi mooy catastrophe bi c'est le chaos waaw mhm. waaw motax mané la xawma kan wante mali ñom tek nañu seen dégg bu jëk pour yéwi seen askan wante nak du yomb kon ni ngeen ko xamé waaw mais ginaaw ñom àndal nañu suñu président yi nga xam ne ñoom dañu fas yéene yeew seen askan jëbal ko France. ñoom loolu la ñu fas yéene France dafa jël suñu président fas yéene yeew askan yëpp jëbal ko waa France wante am nañu ñaari bonne nouvelle yoo xam ne wàcce nañu déjà. Mhm. bu njëkk bi. waaw mooy conseil euh, de sécurité ONU. waaw ñoom ànduñu ak projet sanction yi nga xam ne France ak CEDEAO UEMOA Union africaine ñi ngi koy jéem a teg ci kaw Mali. waaw. <laughs>

kon ça veut dire ne tey Mali am na chance am air bu muy nooyee ginnaaw Sénégal ak Côte d'Ivoire su nekkoon ñoom loolu lañu yaakaaroon pour sonal ko ñu commencé ndax seen bopp. waaye. Mhm. ñetteel bi mooy tabax euh, Mali Mali si jot na pour mu mun a profité pour génn li si mel ni France CFA jéem a xool nu muy tëggaatee weccitam parce que malien peuple malien bi di mu nekk nii seen wax mooy léegi Mali na génnee benn France. kii xaalis bu bees. mooy franc malien. wari wari lañ ko bëgg a tuddee. wari waaw mais c'est bien. ñoom wari lañ ko bëgg tuddee. oui. waaw ñu génn si si franc CFA kon ñoom déjà ñun ñi dem xalaat ay écho ay affaire yooyu Mali bi mu nekk nii toll na foo xam ne mi ñu commence génn xalaat nu muy génnee si franc CFA parce que xam na loolu moo ko tënk. mais mais am na possibilité bi parce que am na recherche bi nga xam ne moo mën a garantie xaalisam ak passeport am doole. waaw ñetteel bi daba mooy nee na lépp luy force française ak ONU biir Mali nee na leen nañuy génn biir Mali ça veut dire que commencé na leen déclarer guerre ça veut leen lenn mooy am ñooñu dañuy nangu génn wala maliens yi ànd ak Russie fëgg leen. waaye génne leen. te ñëpp xam nañ Russie suñu songee français yi dañ leen mos a dóor français yi ñemuñu dañuy daw Syrie dañu ne pëccët daw Centrafrique dañuy ne pëccët daw. mais dama la ne. ñom waxuma la France waxuma la Union européenne mais américain sax ñemewuñu ko parce que moy première puissance militaire en armement ñoom xam nañu. Hmm. lii nag mooy former for pindel ne Mali mi ñu commencé tek ay jéego yo xam ne mi ñuy jël mi yéwi ak kanam di la Ousmane Sonko bëggal Sénégal wante daf ko bëgg jaarale ci yoonu démocratique moo tax sénégalais yi di lañu wara commencé yéwu suñu xolé malien lan lañuy ñuy

te mm-hmm. effet immédiat bi nga xam ne def nañ ko ci sanction yi nga xam ne moom lañ décidé ba pare ñun lu ñu si jaaxal mooy France bokkul CEDEAO bokkul UEMOA bokkul Union africaine lan mooy ndeyu France ne moom dootul jël benn bor boo xam ne day jugee Paris di servir directement Bamako ça veut dire li mooy wane li ñu dem wax askan bi yëpp ne leen mooy firndeel li nga xam ne sanction yi nga xam ne moom la Union africaine def ak UEMOA ak CEDEAO ci kaw. ci kaw euh, euh, Mali France moo ko dicté suñu président yi nga xam ne amuñu fulla amuñu fayda. mais loolu wóor na benn information de taille. waaw c' est sûr leer na. waaw waaw ah, les masques tombent. loolu nag waaw ah. loolu nag dafa dafa jot nag léegi sénégalais yi africains yi Burkina Faye sax commencé nañ parce que il que tey jàpp nañu huit officiers Burkina Faye yoo xam ne dañ dem xalaat ne dañuy préparer coup d' état kon ñoom tamit. seen xel ni ñu commencé nekk te duñ fi jëlee ñi nga xam ne France moo leen fi teg pour mun a indi li nga xam ne loolu ma Assane mi koy daa ak ak ak ak ak kii nekk Dumbuya Guinée def parce que lan mooy jubluwaay bi mooy ñoom dañu pare fi mu nekk ni pour yeewi seen i askan. ah oui jàmbaar. xam nañ ne gouvernement bi mënuñu ko commencé nañu xalaat ne lii du yoon kon nu ñuy def ba jëlee bi nii pour teg bi ay militaire parce que fi mu nekk nii soo xoolee militaires yi ñuy wax dictature ñoom ñoo gën a ànd ak seen xel ñoo gën a ànd ak seen dal te ñoo ëpp fit pour mun a jàkkaarloo France parce que am na ñoo xam ne yoo xam ne ñoom seen yoon nekku ci. waaw waaw euh, euh, Émile continuel mais Makhtar Sow may Makhtar Diallo Bignona may ma tuuti Émile mu ngi toll dafa toll fi nga xam ne fu am solo la yow yaay woote ne appel Euh, euh, dama lay tenir en haleine xaaral tuuti Maxtaar dama la soxla bu baax a baax a baax wa may bàyyi euh, plateau bi daaneel comme ça ñi jël Khalifa Ababacar mu def introduction am après nga ñëw quoi voilà emile continue way ça va xam naa ne dinaa ñëwaat bàyyi ma bàyyi Khalifa dugg parce que xam naa ne kii lii moom kenn kenn lu ñu si wax rek doyul bàyyi ma bàyyi gars ñu dugg comme ça ñoom tam ma permettre ñu am benn kii balaa waxtu bi gën a dem. waaw waaw ok merci Khalifa Ababacar. waaw d'abord ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar ah, di ziar euh, Modou Mbaye euh, Gabriela ah, ñu ngi koy seet euh, nu mu def. di ziar uh-huh. Fatou Diambang di ziar ki nga xam ne mooy Absa Doucouré ak. Euh, ñoom ñoom Boy bajaan ñëpp ah, ñu ngi leen di jaar baax a baax ñu nekk ci plateau bi yëpp ñu ngi leen ñoom Sarata Badji ñu ngi leen di jaar. waaw euh, ñoom Makura Ndong ñu ngi leen di jaar ñoom ñëpp ah ñoom Nene Badji ñoom ñëpp ñu ngi leen waaw donc euh, dañuy ñëw très rapidement ci nga xamante ne mooy actualité bi am actuel fi nga xamante ne mooy diwaanu Mali. waaw lu laal Mali laal Sénégal Mali Sénégal benn lañu woon donc ci lépp lu ñu doon def benn lañu woon boo xoolee seen drapeau yi benn la tubaab bi moo ko ñëw xaaj ndax sénégal tollu woon na ba fa la wax gana foofu la sénégal tollu woon sénégal dafa ba gana lool lépp dafa bokkoon ci sénégal tubaab bi moo ko moom la neex mu tas tasaare ko nu mel noonu mali bi ngeen di gis ni rëy na rëyaay boo xamante ne mat na ñaari yoon la france bi nga xamante ne mu bëgg di ko conditionné mais c'est l'empire donc bu ñuy xool kon la mali kon war na ëpp war na ëpp sénégal lu mu 4 à 5 fois voire plus 6 fois tol na sénégal mali ëppee na ko 6 fois par exemple léegi nag lafa nekk ci ressource naturelle jéggi na dayoo maliens yi nag fi ñu toll nii li nga xamante ne moom la Macky Sall ànd ak waa CEDEAO ñu taxaw dafa mel ni rek ñoom dañu nekk di nokkos nokkos boobu nag moom lañu ñu war a jël tuuf ko ki nga xamante ne nii mooy Macky Sall parce que Macky Sall tant que jógewul Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest du nekk ci jàmm. Mhm. parce que tubaab bi bu bëggee noot pays Afrique de l'Ouest bi te bu amee Afrique de l'Ouest bi rek. affaire am baax na France dafay continuer di noot Afrique di am puissance bi nga xamante ne moom lay représenter sur le plan européen et puis sur le plan africain. Mhm. donc loolu nag pour mu dem foog gars yi xam ne xeexu Mali bii nii aubaine la pour sénégalais yi aubaine la pour sénégalais yi ñu xam ne Macky Sall danger la pour le Sénégal dafa bëgg taal Afrique de l'Ouest ndax pays ñu frontalière yëpp bu embrasé woo rek dafay doy waar ci Sénégal te Sénégal réew la moo xamante ne. lépp loo xamante ne ressource naturelle la am na foofu biir Sénégal Sénégal région bu nekk yor na loo xamante ne mën na couvrir Sénégal yëpp. Mhm. ndax réew mu ndaw la population bi demeewul noonu matuñu dix-sept millions de personnes wala buñ ci yemee ci la ñu yem te nag la nekk ci ressource naturelle. nekkul Mali. lan benn waaw benn benn nekkul Mali nekkul benn ci àdduna bi. ah waaye <laughs> Ababacar. waaw waa ji mu ngi insister rek. waaw waaw um, kon waaw mun nga couper ma téye la ànd ma xam lan la couper foofu allo allo waaw Makhtar waaw sawa sawa waaw maa ngi la doon wax ni euh euh Mayel euh, Khalifa mu def introduction ci plateau bi mais dañuy gis ne yaa ngi insister insister xëy peut-être mu nekk nouvelle bu bu urgence que comme yaa ngi Bignona te xam nga ne président mu ngi mu ngi actuellement di def circuit quoi waaw yaa ngi en rek muy ngi ni presque à 10 km de Sédhiou quoi waaw ok waay bismillah waaw fii moom jàmmal rek dama bëggoon intervenir tuuti ci affaire Mali bi rek waaw wala garaawul ma bàyyi leen ngeen def seen introduction euh non comme légui dug nga xass nga dug kay defal eh, defal après ma jël euh plateau bi bayina la jël ci affaire Mali ça sent nettement que la France panique oui tout le monde sait que France mon ci de la panique complètement xam nañu ni perte nañu hmm. je demande à toute l'Afrique, à tout le Sénégal le Mali de les bras. C'est-à-dire que les Africains commencent à gagner le terrain. Ça, montre vraiment la panique des Français. Uh France, mon Mais, mais, mais, mais, n'en pas les Maliens, Rek. Dina Betty, mais, dina, Inch'Allah, Inch'Allah. Wa parce que, parce que, dès que na Khalifa, nan, yom, créer cette monnaie, ni tout, du Wari, je ne sais pas. Wari, parce que, yom, avons Wari, créer, merci exactement ñom foofu lañu jëm ñom ils ont vite compris légui lañuy ñuy xam ni tey sax ma ngi dëgg yeneen ay pas de ay pas de de troisième génération. waaw. ñu ñu ñuy wax ni ndekete président Ousmane Sonko lii la doon wax il a tout compris même pas yi ñu ngi commencé di comprendre pas yi nga xam ne c'est des illettrés. ah oui continuer leen ci sensibilisation bi Tamba. dëgg nañu comprendre nañu. waaw waaw. ça y est tout le monde ça fu mu ne France la France a compris que il il perd ñu ngi perte terrain bi moo tax mooy indi panique bi. tout le monde l'a compris. ok ok c'est-à-dire maintenant c'est à nous gis nga Guinée nu mu def gis nga la Guinée nu mu def. waaw. voilà moom nee na tëjul benn frontière. oui. ils ont compris gis nga Burkina Faso li Khalifa wax loolu la de. Mm-hmm. parce que dafa am lu ñu tiit. tout ça France moo nekk suñu Guinée. mais mais yàlla baax na. ok. Ah. Afrique tout ou tard Afrique tout ou tard dina am indépendance am. incha allah incha allah. incha allah mais yow yow yow suivre émission bi bul dem parce que dañuy dellu soit yow pour actualité euh, actuellement politique bi nga xam ne moo nekk Bignona ok dama lay jël en haleine. ok ma dellu ci plateau bi jël Ababacar ok. ok way Allô. Allô Ababakar allô Khalifa. Waouh Waouh waouh Waouh. waaw. waaw a point mais comme qui me presque proche de actuellement qui kii ah. woote nii ah. mu ngi pour information urgence parce que dinañu ñëwaat faux am feedback mais fi nga nekkoon dafa solo solo. Ah. no continuer développer waaw. Euh, wax ne fi Mali Maliens yi fi ñu toll nii. waaw. Maliens yi soo xoolee ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ay ay vingt et un millions yooyu. oui matuñu sax vingt et un millions d' habitants. Mhm. la France a soixante sept millions d' habitants. oui. soixante sept millions d' habitants ci benn superficie boo xamante ne cinq cent quatre vingt seize mille waaye euh, euh, cinq cent cinquante cinq mille kilomètres carrés. oui effectivement 900 000 km. la France fait 900 000 km exact. Donc, le Mali fait pratiquement presque 1 million et le Mali double la France. oui. le Mali fait deux fois la France. ok alors que le Mali alors que le Mali a que 21 millions d'habitants. a mm-hmm. que mm-hmm. donc en France gis nga France boo nekkee que au niveau agriculture. oui ñoom ñooy la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis. oui. quand je parle agriculture générale lay wax waxuma agrume, ay ay benn xeetu fruit rek comme nous demee noonu. exact mais agriculture générale. waaw soo la France est deuxième derrière les États-Unis. ok. C'est seen superficie Mali soo xoolee Mali mat na France ñaar. oui. donc les ressources naturelles yooyu Maliens yi tey jii Malien bu nekk waroon nga am ay ranch la ñu waroon di segam tubaab yi ñoo nekk 65 soixante-cinq millions d'habitants yor nekk yor moitié Mali te tubaab yi di dëkkee par exemple ay da ngay gis ay seen ni ñuy ni ñuy ni ñuy lotisser seen lotissement yi. ay 400 cent mètres ay 400 cent mètres carrés lu tuuti la ci mais dañuy am ba ay ay ay village villages yoo xamante ne soit pour ay 1000 mètres carré la lay jox pour nga mën a dëkk lotissement yoo xam kër gi 1000 mètres carré 1000 mètres carré. ouais 800 cent jàpp mille mètres carrés. waay. kon Mali am na suffisamment Mali mënoon nga jël France bi mënoon nga jël population française ñu wax ko Mali. du tax Mali Mali Mali Mali fees. waay. 67 millions d' habitants français yi plus les 20 million de maliens mënoon nga foog ne ñu wax du day Mali day libre. day libre day des. waaw day day des dañuy mën di circuler naaj du am problème. Mhm. kon seen suuf boobu li fa nekk ci gàncax kenn xamul nu mu toll tubaab bi nag loolu la xam jël fexe ba daxa malien yi jëm leen concentré fenn jël lu xaaju Mali téye ko bëgg fa di fa di wax terrorisme ak yooyu xamante ne ñoom ñoo koy nourrir. waaw exact. mais xeex bi man li ma ci gën a neex dafa xam ne sénégalais ñoom ñoo ci war a gën a taxarib taxarib boobu nag mooy jàpp ki bëgg a taal Mali muy Macky Sall ñu faagaagal. mais amul leneen. mais exactement parce que li nga wax nii tey ñun am nañu beneen opportunité boo xam ne tey euh, euh, war nañu mën a sotti ci opportunité boobu pour jëlee fi Macky Sall parce que tëj na le Sénégal Sénégal déjà 200 milliards Ben, Sénégalais euh, euh, freelance quoi c'est-à-dire que une ligue la dem dem président des transporteurs la Khouma camions camions sénégalais ñu bloqué Mali euh, camions maliens bloqué Sénégal tëj nañu euh, frontière yi mu nekk mu nekk avec effet immédiat mais yow yow loolu nag nga ko mën a yow xalifa ci loolu ci euh, sanction avec effet immédiat mais na ONU ONU nee na àndu ci Nations Unies ne na àndul ci sanction yi yow ban point de vue nga ci gis. Ah, xam xam nga xam nga lu tax Nations Unies gis nga Nations Unies. waaw ah. fi ñu toll nii ñoom boo xoolee Nations Unies. France dafay siégé Nations Unies. waaw ah. mais France dañu xam ba Macky Sall ba pare jël ma tey xam nga ko. jox Macky Sall mu kos almet bi. taal toogee na le. kon maanaam Macky Sall mooy bukki. Macky Sall moom mooy le larbin de la France bi nga xamante ne moom moo xam ba affaire waaw mooy mooy bukki am na almet tey mu taal àll bi moom la quoi waaw. ndax mooy noonu la demee waaw ba léegi boo xoolee tubaab yi seen média yëpp ñoom ñu déploré li am Afrique te génnewuñ génne ci loxo France ndax xamuñu ne France moo nekk ci ginnaaw. yooyu xam nañu ko waaye ci au niveau communication. sen population ñu ngi leen di nelawal wax ne les africains sont des cons ñom ñoy ñom ñoy reyante seen biir li Alpha Blondy doon wax. waay. l'ennemi de l'Afrique. ce sont les africains légui nak tuba bi mo moo manigance lolu intérêt la waaye tuba bi feeñu ci ba léegi ñu ngi naan mais africain commencé feetir ñoom ñuy jël décision bu mel nii te xamuñu ne CEDEAO France moo koy conditionné. ok ok France moo koy conditionné donc loolu foog gars yi bàyyi ci xel ñu xam ne lii aubaine la boo xamante ne Macky Sall tayam ji tey gars yi dañu waroon taxaw takk taxawal ko après les élections rek. waaw El Hadj Fallou El euh, Ababacar El Hadj Fallou Diouf nee na euh, Macky Sall ak Alassane Dramane Ouattara ce sont les les guignols de la France Afrique. mais mais xam nga Ouattara Ouattara Ouattara boo xoolee président su Macky Sall la ñu toll nii. en même temps que président Emmanuel Macron. Mhm. kii nekk Union européenne kii war a ñëw CEDEAO donc li leen liyee mooy le gouvernement mondial boobu moo leen liyee. waaw. Macky ñoom dañuy jàppalante di liggéeyante ci côté boobu. Non. moo tax ma ne la diaspora africaine dañu war a dem assiéger pas les ambassades françaises mais les ambassades du Sénégal. exact. parce que Macky parce que Macky Sall moom moo nangu accepter ci rôle boobu ñun sénégalais ci loolu la ñu war a ngoy ak promouvoir bi muy promouvoir l'homosexualité gi demee noonu. ñu jugee ci foofu mu lëkkaloo ak Israël te Israël service de la santé bi góor jigéen la moom moo tey jii dafa moom dafa sëy moom dafa takk dafa takkante te tey moom moo introduire li nga xamante ne nii moo leen di permettre ñoom Israël ñu mën di di góor jigéen ji mën di am ay doom di mën di am ay mères porteuses yoo am ñoo leen di am ñoo leen ñoom ñoom la ñuy ñoom ñooy defal leen ay ay ay ay ay lu jëm ci wàllum science ay jigéen yoo xam dañ ciy jëlee ëmb bu ñu bu si nee ñu jël xale yi ay mères porteuses ñu teg. te Macky Sall ñoom la lëkkaloon ñoom ñoo ñoom ñoo nekk di espionner sénégalais yi ci wàllum vidéo surveillance ak ak yu demee noonu écoute téléphonique kon Macky Sall la Sidi Lamine Niass doon wax ba ma ànd ak moom ñu dugg ci avion dem Israël muy ligne affaire u franc-maçon yooyu kon Macky Sall tax na ci rib sénégalais yi kilifa diine yëpp nañu xam ne seen président bi nga xamante ne moo jiite Sénégal kii musiba du jug Sénégal développement du jub Sénégal tant que Macky Sall mu ngi ci bopp Sénégal 10 ans la waxoon yalla nat nako on est en 2021 nako et fi gay yi na fa ans yi na fi gay yi mais c'est vrai c'est vrai parce que euh, gis nga ni ci combat bi euh, mm-hmm. maliens yi ñi ngi wax franc malien wari. Mm-hmm. wari wari ba wari ban ni ko Alpha ba ñu. ok kon kon da ngay gis ni déjà Mali teg na jalon bi yeewi askan bi ñu doon wax ñun Sénégal suñu slogan yeewi askan bi mais Mali. ñoom waaxu nañu Sénégal Mali dafa waaxu Sénégal Mali actuellement mu ngi yeeweeku donc ngay gis ni. xam nga France France CFA bi Ousmane Sonko doon ngañ ñi parce que kii jënd léegi woote depuis euh, Casamance mu ne c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer léegi même maquette yi troisième âge bi maquette yi sax nee nañu xam nañu léegi Ousmane Sonko li mu wax dëgg c'est vrai kon Ousmane sonk am na dëgg kon nañ ko soutenir quoi waa nga continuer. xam nga nekkoon ci moom ak vision bi moomoon ci Afrique bëgg ko woon waxoon naa leen gars yi ñoom seen seen plan lenn woon bu Ousmane am cinquante ans bu amee cinquante ans rek dafay nekk ci air boo xamante ne africain yi dañuy yeew ba faw moo tax gars yi faagaagal yooyu duudu ko attaques yi amoon Ziguinchor ak yenn complot yu salté yi ñu tegoon yëpp pour faagaagal ko cinquante ans lañ doon bañ Ousmane Sonko am waay loolu dafay nekk ci génération bi nga xamante ne nii boo xoolee Doumbouya ak monsieur Kawita bi nekk fële Mali soo xoolee ci même génération la. Hmm. te génération boobu noonu ñoom ñoo ñoom ñoo taxaw bëgg a libérer Afrique xam nga man ci coow li avancement bi li ma ciy def loré mooy trouver une date di wax ne la tel jour la ñu war a génna déedéet dañu war a génn war ñu dellu ci kër yi waaw dañu war a génn waratuñu dellu ci kër yi c'est-à-dire les africains les panafricains ñoom ñëpp dañu war a génn dem les dans les ambassades du Sénégal laa wax. fu Sénégal ambassade Sénégal dem Maliens dañ ne fa jooru Ivoiriens yi topp leen fa parce que nous avons le même sort Congolais yeeg ñëpp nga xam ne tubaab bi dootul yabale ci kenn mu naan mu ngi jéem a def benn saal bu en Afrique. oui oui ñu bàyyi xeex bi nekk xeexu Maliens yi bu boobaa beneen yoon dañuy jël benn benn benn beneen beneen beneen xeet li muy loo ko la saal bu la mais bu ñu xamee ne Macky la moo nekk ci bopp bi moom la gars yi bëgg a jiital moom moo dugg roofu ci franc-maçonnerie beeg euh, lépp loo xamante ne ay ay ay ay ay ay ay ay valeur la yoo xamante ne baaxul mu koy incarné kooku la ñu war a gars yi jàpp teel ko teel teel ko faagaagal. waaw waaw waaw. xeex waaw xeexu Mali bi pour Mali mucc si tant que faagaagul ñu Macky Sall tubaab bi toujours dafay résister xam nga tubaab lu mu jàpp du ko bàyyi. oui l'histoire bu ñu delloo ci histoire rek tubaab bu la jekkoo ba nga ba nga ba résister dafay dem indiwaat leneen alors que nag loolu mooy Macky la nii parce que Macky Sall tey bu ko gars yi bàyyee dina dooleel Gambie. dina dooleel Guinée Bissau Guinée Bissau dina xëy ñu jéem a étouffer ki nga xamante ne nii mooy Guinée mooy Guinée Conakry affaire yooyu yëpp. c' est à y aura xam ngeen ñi xam xeexu Guinée Bissau bi bi mu fa yàggee militaire sénégalais yi boo gisee affaire bi éclaté wu parce que y avait l' armée ñoom ñoo nekkoon ci biir ñoom ñoo nekkoon ci biir def la ñuy def ba affaire yi sotti ñu rocceeku bàyyi sénégalais ñu naan leen jàmbaar ngeen jàmbaar leen affaire yooyu yëpp dafa génn. c' Gbagbo mm-hmm. bi ko gars yi di daaneel pare yi. armée française bi ñoo ñëw def le sale boulot après dem seen yoon bàyyi bàyyi gars yi ñëw jàpp ko naan way affaire yi mu ngi noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. yenn officiers yi nekk ci ci ci armée bi ñoom ñëpp ci ci ci ñoom ñëpp ci ci armée armée française dañ waaw parce que Gbagbo c'est un panafricaniste. voilà mais boo gisee Kaka bi la bañ mu dem. Mm-hmm. mais Sénégal Sénégal diwtiir bi nekk Casamance ak xanaa Sénégal Afrique mënoon na ci di parce que tey loolu laal ci dëkku boo demee Suisse ak foo fi dem ci àdduna bi gars yi dañuy utiliser li nga xamante ne mooy tiir bi foofu. oui. loolu rek développé na woon maa na la dégg ngay wax mango mais mango ka Casamance mën na jar ba dix mille francs benn pièce soo demee fële boo dem boo demee fële ay saybar. oui. soo demee saybar te moom nga ko jëndee dix mille francs ngay jëndee ngay jëndee benn doomu mango.

la euh, population bi génn euh, jeunesse africain bi génn ñu ñu ñu ci dans les pays africains là ñi nga xamné ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo ñoo cautionné affaire bi quoi ñi bloquer paralyser dëkk bi système économique dëkk bi xex ba gars euh euh, euh injustice bi ñuy teg ci kaw Mali mais ma japp ni ñun Sénégal mais ñun ñoo wala tepp ci opportunité bi parce que yàgg nañ ko wax fii bu ñu dof dof la fii Mali dafay dem bàyyi ñu et Mali il est sur le chemin le Mali est sur le chemin de la délivrance parce que parce que déjà Mali du arrière mu ngi teg mu ngi ñoo lancé Khalis euh, boppam muy wari te am na amdole? bi dina am doole te passeport malien dana am doole te dinañu respecter le malien sur le plan international partout dans le monde parce que or bi mooy garantie devise Khalis. bi te or boobu Mali am ñun am nañu or ñun Sénégal lan la ñuy xaar lan. gis gis nga gis nga boobu ngay wax ci wàllu boor maliens yi bu ñu ginnaaw ba tey seen industrialisation la ñuy njëkk taxawal. Mm-hmm. ndax Russie ci loolu moo tax Assimi Goïta toog ne leen bàyyi leen noonu rek ñun xam nañ bu baax du ñu dellu ginnaaw peuple malien laa soxla xam nga pour lan. Mm-hmm. pour gars financé ko te peuple malien boobu la diaspora malienne dañu mën a dañu mën dañu am solidarité boobu. non ils sont costauds. ñoom tam loolu xam nañu comment comment nan la ka leen koy géré. waaw te seen ndaw yi la waa ji bëgg ne leen yéenay liggéey parce que industrialisation la Russie taxaw pour proposer ko pour le développement du Mali. Mm-hmm. une mm-hmm. fois que ñu bàyyi la franc CFA Mali va garantir sa sa sa monnaie. ñu am seen monnaie boo xamante ne dina am doole seen passeport dina am doole comme sénégalais ñu la nga ñun doon ay ah oui lay doon tant que Macky Sall mu ngi ci Sénégal donc problème donc problème bi mu Sénégal moy il faut ñu dégager Macky Sall mais ma mais ma nee naa la après les locales là wa Macky Sall la je ferai deux fois cinq ans oui mais bu yalla bu né ami affaire sénégalais léegi ñom ñoo nee na du wacc di xaxa kenn Macky Sall gor jigéen mu ngi ko fi installé jaay na gi terre baangi ni scandale gaari ñu ñu ñu

par ragal L'armée armée armée du intervenir contre le peuple sénégalais il faut que sénégalais ñi xam l'armée sénégalaise là du intervenir contre le peuple sénégalais parce que tay ñom xam nañu dëgg bi fu même l'armée sénégalaise tay ñom ils sont petits devant le Mali devant un petit Assimi Koyta qui est là Nous, Tao, sampu une révolution mu change le Mali donc ñun Sénégal il faut que révolution bi ñu parce que Macky Sall a un ko euh, Khalifa le le Sénégal le problème du Sénégal c'est makissal Macky Sall Macky Sall est le problème du Sénégal Si vous bëggee régler le problème yëpp Macky Sall la réglé. régler problème Macky Sall la ñuy régler xeex jëlee ko fi quoi jaamal la ko moom bal yi takk problème. Il takk a bi boy mu jóge fii nga gis léegi ñu régler problème tout de suite parce que fu mu Waouh. Mais waaw. Mali yàlla yàlla moo yàlla moo bëgg a dimbali Sénégal moo tax mu yëkkati coowu Mali bi. waaw wax nga dëgg de. yàlla moo bëgg a dimbali Sénégal moo tax mu yëkkati coowu Mali lan lañ yàgg wax Afrique Sénégal buntu Afrique. nañu tëj buntu bi ñëw slogan wu Yewwi Askan Wi. waay yi adhéré ci projet bi ñëpp xam ne Yewwi Askan Wi moo fi nekk. peuple africain yëpp dañu am benn fierté ci léegi ci Sénégal mais sénégalais dañu jàppoon bopp ay traite moom la fi Senghor liggéeyoon. Abdou am Abdoulaye Wade ci loolu la ñu kii ba ci Macky Sall bi africain yi dañuy toog da nekk ak ñoom ñu ne mais man je comprends pas euh, je comprends pas les sénégalais. Ah te ku dee yeewu sénégalais en 1960 li ñu yoroon ci ay intellectuels yoroon ko ci ay diplomates ñu waroon yaakaar ne Afrique ñun ñoo jiitoon ci lépp yor nekkoon ko ci ay cadres foo leen dégg ci àdduna bi ñu taxaw ñu léegi tey jii réew yëpp a ngi dem ñii ñu ngi dem ci asamaan si mais ñun bu ret booy wax mooy loolu. ah waaw affaire dañ ko war a xeex mu jeex une bonne fois pour tout. ok Macky Sall moo nekk ci jàppandaw bi et c'est le plus dangereux. Macky Sall c'est le plus dangereux xam nga. voilà donc li nga wax noonu euh, peut-être ñi euh, am na euh, Émile mi ngi foofu wala Modou Mbaye. waaw ah, Émile Émile Émile. vous pouvez appeler hein, les gars mun ngeen wootee ci numéro bi ngeen joxe participer seen congaan. Euh, donc bi la coow songaa ñu ngi lay ziar Fatou Dina ñu ngi lay ziar Sonko Duma ñu ngi lay ziar gis nañ laaj bu am solo bi mu doon def parce que tamit d'abord dinañ ci ñëw mhm. teg na li nga xamante ne lii moom mooy euh, mode scrutin bi nan lañ ko war a doxalee naka la gars yi war a wotee lan la ñu war a dugal ci urne bi naka la ñu war a def enveloppe yooyu yëpp muy lu live bu am solo live bu Sonko Duma bi su leen neexee ngeen dem seetaan ko live bu am solo la wan na nit ñi naka la ñuy voté ngeen partagé ko bu ngeen ko mënee dagg-dagg nit ñi xam bañ a juum ci vote bi teg na ko décote te ko ci lu am solo donc ñu koy jaajëfal bu baax a waaw waaw moom moom moom mooy suñu géegeel la Sonko Doma moom ak euh, Gabriela ñu ngi koy ñaanal wér ak wérle pour mu dellu si ci plateau bi mais Sonko Doma aussi taxawaayam vraiment euh, c'est une lionne gaynde la ñu ngi koy sant di ko gërëm moom ak euh, maam maam aussi. ñoom ñëpp ñu ngi ci xeex bi c'est vraiment. waaw maam dictateur bi sama jabar bi ah euh, xam nga sëy boobu day neex jëkkër ji dictateur la jabar ji dictateur sëy bi day neex ñun ñaar yëpp ay dictateur lañu. donc euh, ak yaa astu nga xam ne moom itam benn gaynde bu nekk États-Unis ñu ngi koy nuyu de passage du nuyu jiji euh, donc Kayskof ak gars yëpp liveur yi nga xam ne ñoo téye ci xeex bi ñoom fat Fatmata Danso tout saa yëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di wax seen taxawaay rafet na ci combat bi. donc euh, ak euh, ñom aji ndaw aji ndaw nga kuy kuy xër aji parce que na déjà sur le terrain na ko ci euh, candidat donc di a ñi nga ñoo pour changement Sénégal donc de passage nous, Bulli États-Unis Tunkara nous ñëpp ñi ngi di remercier ci bi gis donc.

Euh, on avons sous rejeté projet en euh, France ak euh, CEDEAO. Mm. ça veut dire que dafa Russie ak ay yi nga Mali. Oui, ça veut dire que armée Mali du France. nous démocratie Mali du na France Nations Unies. ak ak <laughs> non ndax soo ma nee du France mooy du mën euh, France ak ay ak ñi nga xam ne. gars les cœurs parce que parce que gars yi dugg ci commencé saboter live bi ah, ils envoient des têtes de mort là. Uh-huh. léegi lépp li nga xam ne ñaari bloc ñooy formé wu te euh, da xam na loo xam ne day koy uh-huh. mais indi guerre mondiale. oui. parce que guerre mondiale na li tuuti parce que ñaari bloc ñoo commencé formé wu fi mu nekk nii te xam naa ne xeex bi su déclenché woo day nekk xeex boo xam ne daf siy laal Sénégal parce que ñun dañu fas yéene yóbbu suñu troupe te nous sommes frontaliers avec le Mali. mais attention le Mali a lancé un embargo que euh, euh, ONU ne jëndee ay troupam ci biir territoire Mali ne ñëpp jënd dégagé et que donc ñun Sénégal waaw Sénégal Sénégal nañ fa jóge na na soldats sénégalais jënd jënd leen quoi. parce que Mali lancé na leen une ultimatum te lancé na ko ONU. moom laa lay wax ni kon bal mën naa tàkk te bal su tàkkee mooy guerre taxaw na mais bul fàtte ne ñaari bloc ñoo nekk taxaw. Mhm. dafa am benn bloc boo xam ne Asie la ak benn bloc boo xam ne Occident la. oui. te gis nañu guerre mondiale lu gën a ndaw lii indi na ko kon Sénégal nañu xam ne fi mu nekk nii Macky Sall ay tuuxi duuna la ñuy yóbbu. te loo leen xamul gis nga euh, général Assimi Goïta hmm. maanaam xam-xam bi moo yaatu parce que moom commencé woon na retirer ay yenn réserve ci banque française parce que moom ñii préparé nañ seen coup ma ne dugg ñu rek def li ñuy def ni nekk ci ah. non mais moom assuré na population malien bi mu ne pour approvisionnement ne vous en faites pas. non li si ëpp si réserve bi mu nekk ni jël nañ ko ça veut dire que nañ ut nañu benn artiste financière boo xam ne ci la ñuy taxaw ba pare. bu leen fàtte ne or mooy garantie monnaie. soo waxee or ne waaw. am na loo xam ne suñ ko nangoo si li leen France jëlaloon am na loo xam ne suñ ko yokkee si li nga xam ne moom lañ yore Mali mun na créer wari bi mu la wax génn CEDEAO yeewi boppam. ngay. niñ koy waxee sénégalais yi gis nga am na loo xam ne yàlla daf lay dimbali yàlla dafay dimbali sénégalais yi pour wan leen ne Macky Sall mii du ki nga xam ne moo gën si ñun. mais kon seulement dix ans de malheur la ñu indil trois ans yoo xam ne ñu ngi si Covid boo xam ne ñoom nit nu ñu faju ñoom amuñu sax njëgu jënd kii jël suñu mille mille milliards pasar pasar ko moom ak ay njabootam indi ñu teer boo xam ne kenn xamul nu muy mujjee jaay fi suñu pétrole lépp si trois ans bi la ko defee ah. jaay fi suñu pétrole ay ay ay ay milliards yoo xam ne kenn xamul nu mu demee mais écoute sénégalais lii xalifa wax sànq rek suñu jugul. fas yéene jàkkaarloo Mali si 10 ans ñu ne ko doy na Macky fi dama xamul lan mooy yëkkatiwaat Sénégalais yi. mais kon kon kon kon da nga japp ni mais le président Ousmane Sonko kon il a raison sur sur le le, le monde politique du Sénégal daf leen jiitu quoi. mais yow daf leen dépasser quoi. yow yow lu tax lu tax peuple bi topp ko parce que gis nga kaa ma xamal la dara Ousmane dafa andax ak jamono te jamono mo tollol Afrique mom boppam. extraordinaire. yàlla il fait bien des choses gis mu wàccee ci dëkk benn jamono am na lu tax mu wàccee mm-hmm. mu wàccee ci dëkk benn jamono am na lu tax mu wàccee ko te Ousmane c'est un grand. oui. soo gisee mu ñëw burok ñee yox yox di xam di moom laa lay wax nii moom toujours il a une longueur d'avance sur eux moom il est dans l'avenir. Mm-hmm. soo gisee tey ñuy xool Sénégal moom mu ne leen moom jéggi naa Sénégal on est panafricanisme ça veut dire que ne moom am na loo xam ne rawee na ko Macky Sall mhm. ndax ñoom nekkuñu lu dul CEDEAO ay président yoo xam dañuy compliqué sur comploter sur le dos des peuples te Ousmane dafa ne président yi dañu nekk si solde kenn ils vont travailler pour leur peuple Afrique doon benn CEDEAO ñu dajale ko ñu mën a am loo xam ne dinañu mën a concurrencer monde bi en économie mhm. loolu la Macron xam moo taxoon mu taxaw ne européens yi africains fi ñu commencé nii ñu ni yeewu suñ leen bàyyee ñu yeewu carrément dinañ ñu sonal mm. te ñun on va disparaître nee na leen carrément si civilisation disparaître na ba tàyyi te France mën na disparaître la civilisation européenne peut disparaître te ñoom xam nañ ni foofu lañ jëm ndax amuñu ressource amuñu ko waa kay loolu allo allo maa ngi jéggulu damay dafa damaa xaw a jàpp ni mais damay dellu si waat maa ngi nuyu Babacar di nuyu daba di la nuyu benn intervention bu ndaw rek dama dégg ngeen wax sànq ba léegi trahison mais la le Mali a été toujours été trahi par le Sénégal parce que boo xoolee jamonoy général de ba muy def indépendance Sénégal bi nga xamante ne Léopold Sédar Senghor a trahi le Mali Mamadou Dia dafa bañoon. wax nga dëgg de. fédération Mali da ngeen koo fàtte. waaw ah, almaxtum de moo ko doon dox. bu mu explosé fédération Mali da ngeen koo fàtte. wax nga dëgg Mamadou Dia il était ex il était manam mom dafa bañoon am mbir yo xamantene tay Senghor taxawaloon na ko Mamadou Dia bañ ne loolu du am ba mu jibi mari daal ñu séparé wu te Mamadou Dia loolu gënul woon mu koy defar mais pousse nañ ko ba Senghor def loo ko loolu mu def ko kon le le Mali a été toujours trahi par le Sénégal. waaw waaw nañ ko wax mu dé ah. waaw dëgg la ah. Mali ñun ñun dañ leen mësa trahir ah depuis jamono Senghor ba léegi. te c'est malhonnête bàyyi xel bu baax a baax te c'est malhonnête envers les Sénégalais. parce que tay boo xoolee sénégalais yi nekk biir Mali di fa daan seen doole kenn xam nu mu toll te Macky Sall li mu def ni c'est danger c'est c'est danger pour les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk Mali. parce que tey dinañ leen wax yéen seen président nu mu def jaaduwul dinañ dem ba bu ñu deful attention li fi amoon Mauritanie Sénégal dina am dinañ jël sénégalais yi nekk Mali dinañ leen rey par benn benn. bu ñu deful attention. lii nga xamante ne Macky Sall def na ko en en complice CEDEAO ak ki nga xamante ne tey màggatu xobidaas buy dox tey day direeku muy Alassane Ouattara teguñu ko fenn loolu laa ci doon dolli ci ay kàddu xam naa dinaa dellu si kanam. waaw ok ok ok allo Émile allo. waaw. waaw kon ni ñu koy waxee rek fi mu nekk nii. Mm-hmm. dafa am ñaari pôle yoo xam ne dañu formé wu te ñaari pôle yooyu ils vont se frotter ils vont se frotter te na man li ma rek liy tooy Sénégal lay jóge waay waay parce que soo xoolee tey bloqué nañu frontières yi effet immédiat lañ def bloqué nañu frontières yi mm-hmm. mais soo demee frontière Sénégal moo ëpp bagage yoo xam ne mais attends li si ëpp sénégalais yi li am na loo xam sénégalais yi ñoo koy jaay malien mais commerçant sénégalais yooyu ñoom ñu leen kan moo leen di fay seen xaaj ah dëgg-dëgg. mais am na am na ñoo xam ne malien à la livraison la ñuy fay bagage yooyu su yàqoo si frontière bi yegg nga xam ne fa la jëm mais malien ils vont pas payer ces bagages. ils vont pas payer. c'est man su Mali sax dañu baax parce man dafa war su ma nee ñoom damay tëj sax nit du jàll doomu aadama du dugg Mali génn Mali. Sénégalais yi fa nekk malien yi téye leen ba su jëree ñu toroxal leen ñu toroxal leen ndax. kon ñu ànd torox ak malien yi nga xam ne seen président ko liggéey. parce que guerre tax mondial te mag yi loo xam ne ñun sénégalais yi suñu jugul suñu bopp suñu mbokk sénégalais yi ñooy sonn feneen. mooy li ma la waxoon rek xam nga waxoon nañu waxataan nañu woon hors ante antenne. Mhm. loolu dafa laaj ñu teg processus boobu. gars yi dañu war a jóg def ay mouvement tout diaspora bi jëmale ci ambassade du Sénégal yi. waay journée bi ñu xam ne ñu ngi koy déclaré le 22 lañ ko déclaré malheureusement commissaire ba le 22 la wax pour rassemblement partout en Afrique mais boobu dina xaw a nekk ci Sénégal parce que c' est la veille des élections. c' est la veille des élections. loolu moo tax waxoon naa ko fii démb. la veille des élections. Mhm. man su ma mënoon sax su ma suñu amoon jokko ak moom nañ ko jéem a xool nu muy reculer datam bi ñaari fan wala ñetti fan bàyyi Sénégalais yi jàll élection ñu song combat boo xam ne du arrêté tànk sa waa jógee fi wala teggiwuñu seen tànk. mais exactement c'est-à-dire teg benn benn benn benn xeex à longue durée tant que Macky Sall est là matin midi soir kenn du dégg xeex bi day continuer quoi parce que euh, urgence la. urgence la saa waay moo doon ñu ko may jàmm bu muy demee Mali moom réglé wul suñu problème mu naan day dem rek ci problème Mali man loolu laa gëm. waay waay. Euh, donc sénégalais yi lekkuñu sénégalais yi fajooñu sénégalais yi nekkuñu ci jàmm ñu ni seen nerf yi fu nekk fi mu nekk nii mais boo waruñu may waa ji jàmm buy def rek dañu mais dañ teg loo xam ne français yi seen bopp duñu am suñu jaarale seen armes Mali attention suñu suñ ko mayul jàmm euh, ci nga a euh, Émile am nga am nañu benn appel mbokk bi waaw jël ko jël ko. waaw ok ma jëm ko jël mun nga mun xaaral ma jën jël ma jël ko euh, ci kooku ma ñëw euh, donc euh, ma ma jël mbokk moomu doon woote noonu tout de suite là je vais essayer de le prendre ma xool ndax dinaa ko mën a jot donc def na appel voilà yéen a ngi ñu fàttali ni que yéen a ngi ci le plateau des patriotes africains du Sénégal donc voilà ñi ngi waxtaanee tey ci li jëm ci. Euh, Mali ak euh, dossier Mali bi ak nga xam ban ban jeexital la am ci Sénégal wa dossier Mali bi ban jeexital la am ci Sénégal allo mbokk bi na nga def ça va ak foy wootee. wa dama dama maa lay jaar waaw ok na nga def ça va noo tudd ak fan ngay wootee. dama bëggoon dama bëggoon non dama doon wote ci ci kim bi rek ci. Euh, ci euh, kii bi euh, euh, def sama compte sama sama kii ci ci waxtaan wi kii bi. ngeen wax exactement ban dëkk ngay woote nii ban dëkk ngay woote nii. man maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi Allemagne. Allemagne ok bienvenue ci plateau des patriotes africains du Sénégal donc mun nga bañ a wax tur bi ah bu la neexee voilà mun nga bañ a wax tur bi nga joxe sa xalaat. amul amul problem, problem. ngeen def nag waaye waaye ñu ngi sant ngi kontaan ci waxtaan bi wax dëgg dama leen souvent li wax wax imil imil la yaakaar naa yaakaar naa parfois ma déglu leen wax dëgg ngeen waxtaan ci afrique wax dëgg yooyu waaw waxtaan am solo wax dëgg yéen a di sensibiliser sensibiliser nit di waxtaan nag nit ñi di leen yee wax dëgg baax na trop mais pour l'instant comme li ngay wax li ñuy wax rek toujours mooy problème bi yëpp daal euh, Afrique boo problème bi rek ci Macky Sall la mo mooy problème bi. waay waay. parce que parce que moom fii ak jugul Afrique rek man damay xalaat maanaam parce que français yi xam na ne li waa li waa ji wax léegi ne ñoom ñu ngi ñu ngi xam na ne ñoom ñu ngi perte terrain bi mais li naan li naan du ma ci lekk mais dama ciy xëpp suuf ñoom xëpp ci suuf lan la mooy problème mu Mali fi ne parce que gis nañ ne ñoom Mali bu fekkoon dañ ko bàyyi ak Mali rek ah, ah, CEDEAO dugg ci ay genre Macky Sall yi consort yi dugg ci di jéem a tëj frontière yooyu mënul leen dara bu leen embargo mu duñ ko yëg. dimbali na napp dem taaye bëggoon na fa ñëw ñu bëgg ko toroxal mu mujj toog. waaw xamul fu mu la fu mu doon mën a jaar Afrique Sénégal rek la mën jaar comme lii def ay euh, Macky Sall defal ko sal bulo yi comme genre yi. oui le le mooy le nègre rek au service de son de son maître le nègre. oui oui. mooy loolu la moom moom te et man li waay gars wax rek maanaam moom dafa war a dégager mais bu dégager wul man di naan ay deux mille vingt quatre mais avant deux mille vingt quatre sax damay xalaat mu mu créer ñu fi problème parce que ñun suñu diggante ak Mali rek dèjà mën na fa def benn ennemi ñu indi fay problème léegi moom après day mujj bu day mujj waxuma la rek ñun xaay euh, li li nga xam ne ma leen ko doon dugal ci ci ci économie Sénégal ak ak jàmm ji nekkoon suñu diggante am ay ay ay commerçant yi nekk Sénégal yoo xam ne bu fi ne bu affaire bi comme tëj na affaire yi dañuy toog parce que foofu la seen bagage daan jógee. waaw donc moom yëpp calculé wu quoi moom calculé dafa amul xam-xam li ko gëral daan Ousmane Sow ko di wax toujours boo xoolee moom yëpp ko xam sax dafa amul xam-xam. amul xam-xam wax dëgg. maanaam maanaam li naan li naan euh, euh, li li kii naan waa ji naan.

xale yi. voilà da ngay xale boo xam ne yorul dara drapeau nga dóor bal ñu nekk fii di di wër di di fontoo nit ñi continuer di di amer la nit ñi sax du ñaari fan ñett ñu naan ndaw si fii wax na lii gërëm ànd boobu noonu du ma bëgg a tudd trop mais donc mais moom moom daal da ngay dem ba da ngay tiit ba mu daal xeex ak moom jaamu yàlla tax la xale. xale jaamu yàlla la wallahi ja fi mu ne nii. jaamu xeexu yàlla bi jaamu yàlla la pire. parce que mi ngi mi ngi andi góor jigéen teg ko ci dagalal ko ci biir Sénégal andi franc dagalal ko ci biir Sénégal kii jihad la jihad moo tax moo tax ko fi daganal jihad bu rëy loolu jihad bu njëkk boo xoolee sallallahu alayhi wa sallam euh, bi mu toogee euh, dégg nga yéefar yi di dal ci kawam yàlla da ko ne yàlla après yàlla dina ko riposter ñun nag dañoo toog gars yi dañu toog sa réew moom mu dem andi dem dem signé ak convention euh, ak signé accord avec góor jigéen yi ci ci ci turu Sénégal ci noor Sénégalais yi ci turu ci ci Sénégalais yi turu Sénégalais yëpp di sept millions habitants te kenn yëgu ci dara kenn waxu ko fa kenn yabalu ko fa moom yaa gën a def loolu sax nag ba ñu xoolee ay Charlie Hebdo bi ñu ko fi rayee mu ñëw taal son avion jël lépp dégg nga ñëw naan alors ci ci Charles yooyu yëpp ci turu Sénégal la ko defee yooyu yëpp ay problème la euh, borom ñaari tur yi mu fa bëgg a dugal ci turu Sénégal yi yàgg na cee lekk di liggéey ba mu changé. du ba mu changé. Eh, constitution ah, tur tur ba mu changé waaw di ko ci ay ma ay ay genre yooyu la gars yi na ko arrêté. teel teel a jóg ci moom mais dañ ko bàyyi nag muy muy déroulé di di gën a chaque jour di gën a exagéré di di changé rek mais ñoom bu ñu waxee ñuy lay di fenn naan alors dégg nga euh, euh, borom ñaari tur yi. lu waa xaw ma lu waa seen kii article xaw ma 33 xaw ma ko ji li ma di di tax ñoom xam nga ñoom ñu ngi noonu. dégg nga li muy wax du dëgg parce que dèjà bu dee loolu dañ ne dañ ne acte contre nature la gars yi bindoon ne ci e, jamono yooyu ay année soixante ñoo xam ne ñun boobu ñun juddu année soixante te ñoom ne ñoom ñoo waxoon acte contre nature léegi ñoom nee na loolu léegi léegi jëfin woowu léegi nekkatul acte contre nature léegi accepté nan ko léegi kon kay benn wa ilaa léegi kay xam nañ na kon léegi visé tun borom ñaari tur yi léegi ñii dañ na ko nii dañ na ko homosexuel comme carrément amul ay layam layam ak am laan di di di di di léeb naan kee ak de danoo ko dañ ne dañ leen a visé complètement ndax dañ ne loi boobu visé wu leen complètement waaw léegi dañ leen a visé ne leen léegi nan ko changé léegi ñu ne non non loi mi ngi fi woon naa nga dama boo xoolee moom daal li li li li li ci nekk ba nekk mooy moom na dem mais sinon day yàq réew ma yàq na réew mi ba pare ah, ji koy yàq na xaalis réew mi dégg nga chaque jour de dégg nga ba mu fa nekkee ba léegi liggéeyul réew ma France day France gën na France gën na toogaat suñ kaw ndax boo xoolee ba ci ndox mi léegi ndox mi waaw xam nga Sénégal téye muy courant bi nii ndox mi lii lépp jox na ko français yi boo xool ñu ngi ubbi ay robinet yi ci maanee bi ay ndox yoo xam ne doo xam ndoxu duus la doo xam ndoxu lan la mooy intéressé wu ko. xam nga. Mm-hmm. Mm-hmm. non moom daal yal na nu yàlla dimbali mais du diggante Mali moom senegal ñoo waroon a jéem a xool jéem a ci euh, benn benn euh, manifestation baare ko wax ne yi dégg nga gis ne ñu ngi ñu ngi leen di soutenir. ànd ñoo ngi moom kenn ànd ceeg moom moom dong moom jëmi boppam moo ko def di def pour pour pour lu neex Macron nan ànd jëm ca xaj mais li ñu waa gars yi ma def mooy ñu fexe jéem a couper dégager. jëlee ko waaye ñu génn parce que day gën a yàq réew ma fii ak 2024 dana gën a yàq réew ma. non dana ko yàq kay. a yàq réew mi et puis France mi France bu ko kenn wóolu ci en tant que diggante comme son président Sonko ñu gën a gars yi gën a taxaw ci ay ay sécurité am yàlla sax mooy yàlla dana ko saam incha allah. Mm-hmm. mais ñu gën a jëm ci taxaw rek. mais Macky Sall moom Macky dafa dafa kenn du moom loo xam ba loo ko bëgg wax rek xeeb ko quoi xeex ak moom daal li ma la mën a wax mooy jihaad ak moom la jihaad jaamu yàlla la ku ci dee da ngay dem àjjat. parce que kii moom kii moom acti activité activité gi yëpp di ko activité gi yëpp daal acte yoo xam ne nii jullit taxul la comporté woon nii. waaw waaw. doy na waa mais mais maa ngi kii de lu ma mais. xam naa incha allah bëgguma téye ligne bi lu yàgg daal xam naa ne man da ngay toog ba mu yàgg léeg-léeg boo ko imaginer moom di xalaat ci moom di kii a li gars yi ba ñu saaga sax du comporté wuun saaga mais da leen di merloo léeg-léeg da xool nekk pour nga génne ko man moo tax may woote nii mais man daanaka soo damay faral daaw ma woon woote ci kii mais da ngay dem ba li ngay denc sa xol bi doo bëgg lu dul jug rek nga jël sa ay <laughs> merci beaucoup. merci. mais merci beaucoup voilà donc euh, euh, mu nekkoon euh, donc mbokk bi anonymat ma jël kii nga depuis Sénégal donc ñu jël alors sénégalais mi ngi parce que 10 wedd bokku ci tay sénégal way allo waaw dafa mo sama bokku moomu gën léegi waxna lepp aha gis nga man dama comprendre sénégalais yi nu mu témé xolal ma farba ngom khalifa wax ko farba ngom sénégalais a ngi ni ku feebar du faju allo. waaye ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg demal. ku feebar du faju école yaa ngi ni ay ay ay ay ay ay ay ay ay pareeguñu ay am na ay école yu bëri yu nga xam ne c'est des abris provisoires. waay. yow nit ñi am na benn femme boo leen fàttaliku trois mois de cela ku nga xam ne jooy na ba mu ngi koy kiis kenn defu ci dara. muy doomi sénégalais. yow far ba nga koy wër di dugg sa oto di sandi ay billets de banque. Mm-hmm. gis nga gis nga li gars yi di wax wax wax wax nañ dëgg gis nga yàlla du nit. yàlla du nit. yàlla du nit gis nga Macky Sall dañ ko dañ ko élire accidentellement. c'est un accidenté de l'histoire politique du Sénégal un arriviste à la tête du pays. gis nga nu mu demee yàlla fal ko yàlla indil ñu Ousmane Sonko bu nga xam ne dafa set wecc il est parti du néant laa la wax dañ néant. waay ñu créé ñu créé Pastef jël jiital ko mu def quinze ans impôt et domaine kenn du ko toppee dara takkul dara sept huit jàng am xam-xam. Mm-hmm. dafa xam nga daf ñu indil benn président accidentellement comme ça. oui mu woon ñu kii mooy mu indil ñu Ousmane Sonko nag woon ñu waajaa ngi nii déglu ma bu baax de lu may wax da waaw. chaque fois loolu wax gars yi ma ne leen kooku ku jara fonk la kooku ku jara jàpp la kooku jàppale la yàlla yóbbu ko quinze ans impôt et domaine laalul dara laalul benn alal sénégalais moom un franc bu mu moomul musu gars yi jéem nañ ko ger ba sonn am na ñu wax xam ne dañ ko contre sànne ñu ngi koy wax waaw yàlla def ba mu am parti waaw euh, Makana Silla may ñu tuuti ñu jël la Makana Silla xaaral mu daaneel ñu jël la waaye allo mhm, yàlla yàlla jàppale ko ba mu dem assemblée nationale bu mu demee assemblée nationale sénégalais yi gis nañ ko assemblée nationale. waay. Sénégal kañ la gëj a am député bu mel nii. yàgg na de ma xana si la may ñu rek may ñu waaw. damaa musut am. waay. député bu nga xam ne day taxaw assemblée nationale défendre peuple bi laal fu nga xam ne foofu la peuple bi soxla. waay. yàlla daf jaar seen kaw ñoom ñëpp ñëpp mu yóbbu leen retraite keroog keroog Ayda Mbodj wax na ko. Mhm. wax na ko jigéen soor. mu ne ko yow yaa ngi dimbali sa noon yi sax sa noon yi sax fu mu ne nii yaay tax ñu am programme. waay waay. comprendre nga. Mhm. yàlla jox ñu kooku. mooy yàlla mu ngi ñuy woon bu ñu yàqamte mais man sénégalais gis nga yéen diaspora bi keroog keroog Akhenaton mu ngi koy wax sax. gis nga gis nga sénégalais man sénégalais jaaxal na ma yow kii da sénégalais graoul graoul bi dafa jeex dafa war a jeex ci sénégalais yi instant yi Sénégal métti na rusloo na métti rusloo bu nga xam ne foo ko natt wees na foofu. gis nga sénégalais il faut ñoom tamit ñu jëlaat seen destin lu nga xam c'est-à-dire ñoom bu ñu toujours Sonko na wax Sonko na wax Sonko ñoom tamit nañu jóg dimbali Sonko Sonko parce que Sonko dara ci nit ñi Sonko dafa bëgg réew mi baax dafa bëgg réew mi tegu ci yoon dafa bëgg kenn ku ne nga gis sa bopp ci réew mi nga xam ni ci réew mi nga bokk doomi Macky Sall warut a gën sama doom man. jërëjëf laaj daaw. do doomi sama doom. Ah, ko de. ah. dafa métti de gis nga waa boo kooku génn lu mu wax nit ñi seen xol mooy dem boo tàng boo di wax ci réseaux sociaux yi doo tey nga saaga. loolu rek mooy tax nit ñi di saaga parce que seen xol moo jeex da ngay nekk ci réew nga gis ñi nekk ci réew mi yor ci réew mi yor réew mi te yaa leen ko jox waroon loolu ñu delloo ko ci réew mi mais ñoom ñu ngi koy puuxare boo wax waxee duñu la paale loolu metti na mais yéen diaspora bi tamit kenn ku ne ki nekk foofu ci diaspora bi am na fi ay mbokk na wax mbokk yi bul toog rek ataaya naan noo am naa benn gaay bu nekk pële réew baa ngi métti doo jóg wax parce que lan la dafa am weer bu dee ñu yóbbal c'est pas ça nit ki da ngay yërëm say doom yërëm sa mbokk bu jógee fii nekk ci àll bi xoolal depuis Sénégal fii ba diaspora bi dafa métti kenn xamul noo leen dagal ba egg foofu nit ñi nañu yërëmante ba ñu bàyyi Macky Sall waaye lu wax loolu de Macky du bàyyi réew mi de Tini, jamais de la vie. ok jamais de la vie kooku tabax man maa la ko fii Sénégal laa nekk te xam naa D'accord. d' accord ñaari option am mu forcé jëlaat réew wala mu kopp ci suuf dem yoonam. non jël jël jëlaat réew mi du fi am. kooku moom kooku moom du am du am fii jëlaat moom du am fii. non loolu moom c' est sûr et certain Macky Sall nekkaat fii encore njiitu réew Sénégal gelat Sénégal fii déedéet du bii Sénégal.

mu ne ma non non xam nga non non bul wax loolu bul wax ma ne billahi wallahi tallahi réew mi yàqu na ma mu ne ma lu tax nga wax ko ma ne ko gis nga Macky Sall mii c'est le seul ministre laa gis mu dem ci bureau de vote yorul carte d'identité mu wote mu ne loolu noonu la loolu xam nga loolu passé na ma ne ko non non non non nit ku nga xam ne nit ku baax du def na nit ku bëgg réewam du def noonu du du demee noonu. ok ba léegi maa ngi wax maa ngi wax exactement léegi moom il a compris mu ne ma yow li nga doon wax ci waa ji nekk ma ne ko gisagoo dara. ok ma ne ko li lii gisagoo dara. mais nag euh, yàlla baax na. d' accord d' accord élection yi dina ci génn ci jàmm wi dina gagné toutes les grandes communes communes yu bëri yu wi dina gagné. incha allah la ko wax. d' accord lu ma gis fii man je suis sur terrain lu ma gis fii. non non non. seen xel dal mais bu leen bàyyi ngeen wax wax leen rek. waaw mais euh, no gisee Bignona. Ah, non Bignona gars yi ñu ngi yëngu ah léegi laa jógee gars ñu ngi bajoo ko doon di wër. mu ngi yëngu mu ngi yëngu xam nga sa waay tey dafa def benn meeting uh, Oben Sagnang xam nga xam nga Karamba Goudia bi waaw chef de garage bi hmm. waaw ñoom xam nga moom Oben na nekk di jàppale affaire yooyu ko waaw ñoom foofu lañ nekkoon tey mais ñun ñoo gars yi ñu ngi tourné ci biir Bignona ñëw na tey bajongoto ci timis bi bu muy passé bajongotoon laa leen bàyyi sax hmm, hmm. waa waa waa waa waa waa Bakary Diatta ñu ngi foofu mais yàlla baax na d'accord yàlla baax na d'accord ok Karamba moom mi bi D'accord, allez. merci Karamba du xam nga ko. non xam na ko dina jog ci ay merci ci information. ok ok merci. Mhm. donc euh, ma ñëw ci mbokk mi doon woote si la euh, plateau bi moom tey moom <laughs> affaire bi dafa awa la dawme quoi waaw ñi jël si la. Mhm. waaw maaleykum da baax. waaw Sylla na def yaa ngi ci biir Makana Sylla na nga def. ñu ngi nangu ziar. dafa neex lool. ay ci whatsapp ci kii bi ngeen nekk euh, ci YouTube bi. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci euh, kii bi euh, page bi plateau des patriotes africains du Sénégal waaw.

waaw commencé na am conséquence ndax. ah sénégalais ñoo bloqué camions wala maliens yi. maliens yi quoi. maliens yi voilà merci beaucoup. maliens yi ñoo ko bloqué ca xam nga kooku problème lay am jafe-jafe day am koi day am. ndax ndax Sénégal ak Mali benn lañ woon ndax benn dëkk la woon. Mhm. kon boog ñun suñu président bi dafa bëgg a taal. suñ dëkk bi parce que suñu diggante ak Mali affaire ennemi bu ko fi indee rek mën naa am problème. day am problème ca lay jógee. lii tooy si ñun lay jógee. waaw boobu leer na xalifa dafa wax lu am solo xalifa tani ñun ñëpp dañoo war a jóg diaspora bi dem ci ambassade Sénégal jël photo Macky Sall taal ko. waaw na yëpp di gis. loolu la quoi parce que parce que dafa yabaate quoi parce que. li mu perte loo Sénégal xam nga ñaar lay gagné deux cent milliards lay gagné ci Mali seen i bagages ci boor beeg yooyu. Mm-hmm. nga ñëw bëgg leen nga bëgg koo xañ équipe Sénégal nga xam ni yow bëggoo Sénégal. wax dëgg yàlla. bëggul Sénégal bëggul Sénégal kon boog population Sénégal ñoo war a jóg xam nga jéem ko dagaase ci deux mille vingt et un deux mille vingt deux bi mu dem. waaw parce que tamit sa waay dafa yabaate ah, wax dëgg yàlla vraiment leen di porter soutien parce que. daal vraiment man waaw parce que affaire daal da ngay am lu la métti waaw vraiment da ngay wax ba sonn du jeex quoi ah. <laughs> mais sénégalais ñoo war a jël ah. combat diaspora bi waaw. dem cibler ambassade yi. bu ñu initial woon rek Sénégal ci bi dañuy jot. oui parce que waaye dañ ko bare ci affaire góor jigéen bi bu diaspora commencé rek population Sénégal dañuy jóg parce que diaspora bi ñoo leen di mbokk mi naa la jël may ma mu daaneel. ak yii ñuy jóg man kay waxtaan bi sax dafa neex daanaka di déglu sax moo ma dàqal. d'accord ok merci beaucoup merci ñu nangu ziar merci. waaw allo mbokk bi yaa ngi ci biir. asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si nanga nga def ça va. waaw. Maman, ci li ngeen wax yëpp c'est vraiment bien. oui. Allô? Allô, soxna si. non. ah eh ben. Allô? man ma maa ngi leen di déglu a yaa ngi woote fan États-Unis

généraux yi les retraités yi mu yor ko ko euh, jëndal boppam avion bu bees jëndal boppam yacht bu bees je que quelqu'un qui part dina defaral boppam loolu yépp pour ki nga xam ne moom la gën a bañ pour ku koy remplacer voilà loolu mooy premier premier qui donc Macky Sall bu ñu nee élection mooy tax ñu jële ko fi dañuy nax suñu bopp parce que jusqu'à présent à moins que je sois pas au courant gars yi kenn gisagul fichier électoral bi moom rek moo xam li ci nekk. Mhm. deuxièmement nan nga mënee jël une décision aussi nan lañ mënee jël une décision aussi lourde te préparé wul sénégalais yi nekk Mali may leen chance pour ñu bëgg ñibbisi ñu ñibbisi. Mhm. en cas de pépin ñu mën a xam fu ñuy tollu. déjà y a une irresponsabilité Macky euh, euh, exact deuxièmement pour bu ni euh, Mali dañuy son, mu parce que Mali s'est bien préparé. Mhm. Mali dafa négocier avec l'Algérie. Mali Mali dafa négocier la Mauritanie. Mali Mali négocier avec la Libye et la Tunisie. Mhm. gis marchandises qui ont transiter par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. ils vont mhm. transiter de l'autre côté. exact donc Mali du souffre. souffrir au contraire ñun on s'est tiré Macky Sall s'est tiré une balle dans dans le dans le pied. oui oui oui. en plus il y a une chose il y a quatre présidents ñuy en Afrique de l'Ouest deux en Afrique centrale deux la ñu. Mm. te bu ñu problème Mali c'est juste un problème malien ñu ngi nax pas bopp. non non non non. Le un problème malien c'est un problème africain. Mm-hmm. nous ñoo war le ñun ñëpp ñu Mali moo tax bu ñu leen jàppalee. Mm-hmm. Guinée da ciy tegu bu ñu jàppalee Mali Guinée dina oo touristes yi ñu ñëw jàppale leen Guinée bu ci tegoo on va se libérer jusqu'au Cameroun. effectivement parce que déglu naa euh, média Afrique média ce matin lépp ñi ngi wax ci mm-hmm. sens bi ngay waxee ni euh, ñëpp foofu la ñu lancé seen appel quoi tey. Mm-hmm. ben oui il faut pas ñu non non non ça parce que Mali c'est bien entouré. Mhm. Mhm. Hein, ñu ngi leen apparemment d'après euh, les informations que j'ai mhm. cinq mille la ñu il jusqu'à deux mille ils vont partir ils vont fa des. oui waa OTAN. ñu fa des donc ñooñu ñëpp Mali mu ngi leen di pression pour ñu génn. waaw si parce que wax na ko ONU il a dit Mali euh, demande les Nations Unies pour ñu jëlee ñu jëlee fa gars nañ fa jógee quoi fi leen jox ultimatum pour ñu génn territoire Mali bi. Exactement. Et en plus, nous oublier que ça, c'est un régime militaire. Les ordres s'exécutent. Sans hésitation ni murmure. Point. Wow. Lolo, quoi. Voilà. donc euh, allez solidarité pour le peuple malien. merci beaucoup ñu ngi rafetlu sa tu seras toujours bienvenu parce que euh, kër le plateau c'est un plateau euh, des patriotes africains du Sénégal Hein? am nga ci donc nous nga intervenir saa le sommet. soobee. léeg Dabakh Malick mooy nekk ci plateau bi Khalifa Ababakar, léeg-léeg suñu Gabriela donc mun nga euh, tout le temps saa yoo bëggee joxe sa xalaat la mun nga dugg si joxe sa xalaat ñoo ko bokk merci beaucoup di la sant le gërëm ci intervention merci beaucoup ok merci beaucoup oui oui d' accord merci waaw de tey moom affaire bi dafa alaat daw mais parce que il faut que aussi tamit euh, ñu xool am na <laughs> euh, gars yi plateau bi nañ ma may tuuti ma jël je vais prendre ma jël ki nga xam ne moo nekk di woote noonu donc ci ci plateau bi parce que fu mu ne nii euh, après ma soit qui qui plateau je crois que waouh oui allo oui allo oui allo waouh waouh da nga va? ça va ça va ça va bien bien merci Merci, live Waouh, live direct Merci, live Waouh! ah ok. Mhm. ah maa bëgg a contribuer. waaw. ñu oke lay déglu. ok ok man maa ngi woote fii Espagne. waay. waaw ya, ya. ngi oke Yaya Badji. Yaya Badji ok Yaya. di kontaan bu baax. am lay déglu la chaque fois mais nag tey maa ngi doog a am ah, tey ci pour la ok ok Yaya waaw ah, sa live yi ngay def nii moom dafa am solo trop donc li ngeen di waxtaan nii tam dafa am solo trop mais nag lu ma bëgg a contribuer mooy Macky Sall ah Macky Sall moom ay mbiram moom ko day waa trop waay man lu man sénégalais mooy sénégalais ñëpp ñëpp ñu booloo ñu booloo surtout si élection lu may wax si élection bii nii waaw ñu booloo nekk benn ñu a sécuriser kii nii élection maanaam bu ñu wootee ba pare ñu bañ a bañ a génn foofu noonu nañu doog sécuriser. parce que Macky Sall dafa dangereux. waaw dafa danger dafa trop. waaw. te xaalis xaalis xaalis mooy lépp tey tey tey maa ngi gis benn vidéo kii nii Farba bu muy séddaale xaalis. te dañuy xiif dañuy xiif loo nit ñi nit ñi ba ñu xiif après ñu ñëw jox leen xaalis te xaalis xam nga xaalis dafa mën lépp. waaw léegi sensibiliser bi mooy il faut ñu nekk ay muñkat waaw ñu jéngu jàppale kii bi pour suñu local localité bi mu mun na développer parce que Casamance vraiment moom dañoo sonn trop waaw dañoo sonn trop man loolu laa am pour contribuer bon di la ñaanal bu baax merci beaucoup di la kontaan nañ trop trop merci beaucoup oui yalla na la yalla fay yalla la yalla jàppale. yalla ar la. amiin amiin yonent bi. merci beaucoup ok merci beaucoup jaajëf. Euh, voilà donc mu nekkoon mbokk bi doon intervenir noonu ci ci live bi alors donc dañuy rek dellu dem jëli gaay ci plateau bi euh, euh, donc xam naa équipe bi ñu ngi may xaar gaay yi ñu ngi ci donc ñu ngi xaar ñu ngi déglu bëgg a participer ci ci ci plateau bi donc. ma ma jàpp ni euh, waa mbokk mi moom wuy yàllo ma jël dën ngeen mbokk bi parce que mu ngi doon insister pour woote waaw allo allo mbokk bi ñu ngi lay jël boo ñu déggee jëlal allo mbokk bi boo ñu déggee jëlal defe aussi euh, dafa dafa donc euh, modèle lourd cette équipe nous ñu à continuer parce que euh, gars une ñu ngi équipe bi ñu ngi je vais les prendre Oui, allô allo ma équipe bi waaw allo waaw waaw. ah ama am na am benn appel quoi. <laughs> waaw. waaw ok ma jël ma jël ko ma jël auditeur bi ma jël ko rapidement. Euh, bi insiste di woote ne appel bi waaw ba jël ko oui bonsoir oui bonsoir oui le grand patriote Daba waaw wow kooku na nga def ça va je suis Ignace oui Ignace comment vas-tu ça va en forme ça va depuis Dakar ok depuis Dakar au port oui c'est vrai moom la dit, c'est logo quoi oui Dakar au port oui ça va ça va. ok merci vous euh, voulez participer quoi tu es en direct sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. voilà donc euh, vous avez le monde entier devant. Mhm. Ah, je salue tous les patriotes qui sont à l'écoute. oui. di wax ni que sanction bi moom bi dina répertorier eh, négativement sur l'économie du Sénégal. ok. parce mm. que Mali lu bëri Sénégal lay jaar. Mm-hmm. Ah, waaw depuis démb amul bateau Mali bu dugg si bu indi ceeb ou bien soble ou bien leneen ou bien duudi. ok tout a été bloqué. oui. et puis ça le grand le grand perdant aussi ça sera le Sénégal. exact. le grand terrain, ce sera le Sénégal. Parce que le Sénégal gagne beaucoup, beaucoup de milliards si un camion est marié Ah, presque 200 milliards. 200 mhm. milliards, imaginez. Donc, euh, ma vraiment, il est loin d'aimer les Africains. Il est là pour servir l'Occident. Mhm. Parce que hier, j'ai vu Macron dire lui, il soutient Sanction du Mouké Soutani. J'ai dit, voilà, voilà, voilà un professeur qui félicite ses élèves. Ah, c'est ça. Parce qu'il les a donné un ordre à accomplir et ils les ont accomplis. Mhm. C'est ça, c'est ça. la France est menacée. Oui. Si Boumalan il y a une certaine des parties, des, des, territoires qui sont l'ordre qui dalle. Mmh. L'armée française interdit l'armée malienne d'y pénétrer d'y aller donc euh, si les Maliens ne se sentent pas en sécurité chez eux vraiment cette France là doit quitter le Mali. oui comment un pays euh, comment un pays. Euh, les gens de ce pays peuvent être interdits dans leur territoire de ne pas accéder dans certains secteurs, ça c'est malhonnête. Euh, c'est malhonnête. malhonnête. Voilà, donc euh, il faut que euh, la France même quitte le territoire malien. Et je crois que la France va quitter, parce que avec ses alliés, les alliés du Mali, la France quittera par force ces territoires-là. Ils vont partir. Ils, vont quitter, ils vont savent qu'ils ont déjà perdu le combat. Parce que le réveil, vraiment, il y a des panafricains qui sont dans le terrain de sensibiliser. Ouais. Nous sommes plus à, l'époque coloniale où on fait que souffrir la tête. Oui, oui, oui. Nous sommes des Africains qui osent dire non, qui osent dire maintenant non. On n'a pas de complexe. Oui, oui, yes. C'est ça qui a fait le crâne de vraiment Vraiment, corps fait peur aux, Français. Mm -hmm. fait peur parce qu'ils savent le jour qu'ils prendront ce pays, leurs intérêts vraiment, vraiment seront détruits. Ils n'auront plus accès à l'Afrique. Mm-hmm la France devrait occuper 17e puissance économique mondiale. Si la France fait partie des cinq économies mondiales, c'est parce qu'il pille le ressort de la l'Afrique. Mais il pille le ressort de l'Afrique Voilà. Et puis, en complicité avec nos chefs d'État. Oui, c'est marionnette installée là. Voilà. Macky Sall, euh, Macky Sall en 2008, il y a un démissionnaire. C'était la France. Oui en 2008. Il a été préparé. En 2008, il paraît que beaucoup d'entre eux, ils savaient qu'en 2012, Macky Sall sera président. En, 2008, la France savait qu'en 2012, Macky Sall sera président. Et nous, au Sénégal, quand on nous demandait en 2008 qui sera président du Sénégal, il peut dire Idrissa Seck oui. Mais comment la France a pu réussir son coup C'est très important. Comment la France a pu réussir vraiment de mettre en place euh, Macky Sall et ils ont réussi C'est parce que a commencé à les dégager. Mhm. Vous imaginez qu'on était au bord, c'était les Français qui étaient là-bas, Idrissa Seck et, et Ablewad, ils ils amènent euh, ils ils à Dubaï Dubaï port. Oui. Ils ont une économie Sénégal léegi ñoom ñoo nekk di tabax euh, le port de Ndayan, la à Dubaï port. Mm-hmm. parce qu'ils savaient que France Bois, xarito c'est c'est De Gaulle qui nous l'a dit les États n'ont pas d'âme ils n'ont que des intérêts. Mm-hmm qu'est-ce que l'Afrique la, attend pour se libérer Oui, je crois que euh, nous avons l'opportunité avec ce processus. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre notre indépendance Oui. Ah, il y a problème. Il y a problème. Et je crois que maintenant, les dés sont jetés. Nous avons l'opportunité avec euh, le Mali qui nous offre, qui nous offre euh, l'opportunité sur un euh, plateau d'or, je ne dirais pas d'argent, mais qu'il faut maintenant saisir l'opportunité et l'exploiter. Ah, ah oui, le Mali, c'est un pays à soutenir. Oui. La fédération du Sénégal, c'était deux pays, le Mali et le Sénégal. Mm-hmm. Oui. Vraiment, euh, la Guinée-Conakry va ouvrir ses, ses, frontières terrestres, aériennes et maritimes. Oui pour ce que cet embargo ne puisse pas toucher le, peuple malien. Euh, avec, ainsi que la Mauritanie Tous les bâtons, mhm. oui, tous les bâtons qui sont au port de Dakar, bloqués au port de Dakar, je dis bien. -hmm. et, et, Conakry à partir de Conakry dinañu descendre les marchandises Mali Mali jël ay camions yóbbu ko ba y a ok waouh, Alhamdoulilah donc, c'est pour, vous dire que c'est Macron qui est derrière tout ça. Ok. Ça, c'est sûr. C'est Macky Sall qui est le commanditaire. Macky Sall et Ouattara, c'est les deux. France vous savez, def bu santé. si ñaar pour ok. c'est les deux là qui sont en train de gâter l'Afrique de l'Ouest. ouais c'est eux. Mhm. c'est eux c'est eux qui sont en train de gâter l'Afrique du Sud. Vraiment, Macky vraiment, Moussol, il lui reste 24 mois, il n'a qu'à partir. Non, il ne peut pas attendre 24 mois. Ignace, on ne peut pas attendre 24 mois. Euh, euh, non, 24 mois, c'est trop. Macky il doit partir après les élections. On doit déclencher le processus pour son départ. Ça, il n'y a pas, a pas à attendre. Il faut qu'il quitte. Il est derrière tout ça. Voilà. Il est derrière tout ça. Ouais, ouais. Macky dit après les élections, il va faire un remaniement. Mais il va partir. Il va partir. Donc celui qui, celui qu'on va gagner chez lui, il va te chercher. Il va te dégager du ministère. Oui, non, c'est lui-même qui sera dégagé, lui-même, lui Macky On va le dégager au palais. C'est ça, il faut le dégager. C'est lui-même qui sera dégagé, mon frère. <laughs> Ah oui. Ah oui. Voilà. Vraiment, il est... Euh, parce qu'il faut qu'on s'organise pour le dégager, quoi, le déloger au palais, là. Il faut le faire dégager au palais. Voilà, c'est ça, quoi. Mais nous saluons votre participation, hein. c'est vraiment pertinent. Vous pouvez toujours participer sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. Euh, aujourd'hui, c'est d'abord sur le ah, plateau. Demain, Merci sera. À, votre disposition. Merci. tu peux appeler parce que c'est un, un, roulement. à qui dira. Oui. À qui dira, il y a des camions maliens qui sont bloqués. Qui sont bloqués, tu vois. Au port de Dakar, au port de Dakar, les bateaux sont bloqués. Voilà, regarde. Et puis c'est l'économie du Sénégal qui est menacée. C'est pas Macky devrait regarder si l'économie du pays, c'est pas, ne devrait pas regarder si Macron. Exact. on, on, perd des milliards par, jour. Ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, parce que le Mali, c'est le moteur exclusif, c'est le moteur. C'est le premier partenaire du Sénégal. Sans le Mali, sans le Mali, euh, vraiment le port algérien. Ok. Parce que voiture, ça passe là-bas. Voiture, tout ça, le retour passe au port de Dakar. Ouais, ouais. Mhm. Vraiment, c'est pas le bon choix de sanctionner un pays frère comme le Mali. Ouais, ouais, ouais, ouais. Les Français sont jaloux du Mali. Ouais. Ils ont peur des Ils ont peur des Russes et ils savent qu'ils ont déjà perdu le combat. Tôt ou tard, nous un jour l'Afrique sera libre. Inch'Allah. Inch'Allah. L'Afrique, c'est le premier continent et il sera aussi le dernier continent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah Merci beaucoup. Eh, donc, euh, vous, êtes euh, sur le, étiez sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. Euh, D'abord, Malik, euh, donc sur le plateau aujourd'hui. Et demain, vous allez avoir Khalifa Ababakar, après si possible notre sœur euh, Gabriela. On vous remercie de votre participation, merci beaucoup. Alors donc, je crois que nous allons euh, prendre l'autre qui est au bout du fil. Euh, donc, parce qu'actuellement, <laughs> affaire bien faut hein, gagne. Mais, les gars du plateau là, ça chauffe quelque part quoi, parce que vraiment, les gens appellent de... Les gens les gens appellent. Oui, mais, mais, mais, mais, mais, eh ben, mais, mais, eh, donc, euh, euh, je peux, l'autre est là, je crois que euh, lui aussi, euh, euh, ah, mais, mais, mais, Alors, je sais pas, oui, bon. Oui, allô? Waouh! Waouh! waaw mais mais mais mais am na ñu nekk ci ligne bi il faut que ki nit nga dugg waaw. non parce que parce que daa bëgg xam damay def ba yaa ngi ci biir mbokk mi. waaw léegi. waaw léegi gis nga euh, li waaw. Ah. Burkina Faso commencé na fippu. waaw. commencé na fippu y' a mais militaires yoo xam ne commencé nañ di fippu. waaw dina jël sous région bi nag dina jël sous région. ñun tamit ñu jël ñun tamit Afrique de l'Ouest ñu jël suñu destin en main. oui oui. destin bi foog ñu jël ko en main mooy lan c'est-à-dire lu am kii lu amoon pré Burkina Faso. oui bu bloqué financé na leen bloqué ci ay mbir moom ñu fàtte ko fépp bu ñu romb. parce que aussitôt da da Dakar dem seen yoon.

investir ak Dakar da gën a am doole y a des jeunes cadres yoo xam ne ñoom loo wax ñun ñoom il faut changer le Sénégal. waay. y a des jeunes booy am na gis naa ma am naa ko mu ne benn bés bu may bu may liggéeyal xam nga su ma la waxee ba ñi ren ñi paase ren ren ren lay doctorat. waay vigile la vigile la. y a eu un gars koo xam ne vigile la ñi def doctorat ñi def vigile. te c'est un contracteur il n'est même pas embauché.

tey day day Igbo dégagé ñoom ils savent que Igbo dégagé day far mu nekk nii xam nañ ñoo échoué. waay waay am nañ ils ont ils ont ils ont échoué. exact exact exact. nu mu commencé nu mu commencé nii Mali day ñëw day ñëw Sénégal dem dem Guinée dem dem Côte d'Ivoire parce que bu mu nekk nii Guinée moom pare nañ. waaw. pare nañ. exact. jaajëf mbokk bi. fu mu nekk nii. xoolal mhm. ah, bu leen génnee bu leen génnee ah am lu muy lekk. amul benn ressource. amul benn ressource de amul benn ressource. fan la ñuy lekk. waay. yow gis nga yow gis nga yow gis nga li ñuy def immigré si ñuy waaj a dugg seen dëkk France lu leen di sonalee. waay waay mhm. ñaata la ñuy am seen niveau au niveau de leur ambassade ñaata la ñuy am. waaw ay des visas là. demande de visa tu payes après après on te refuse le visa il faut ñu ça sera un combat pour les visas là tu déposes pour le visa on tu payes après on te refuse le visa on te rend ton passeport on le détruit on et on bouffe ton argent ça on doit euh, ça c'est tous les les les les les les ambassades là de l'Europe là nous allons vous combattre sur ça ici c'est le plateau des Africains tout se passera par ici voilà c'est anormal. c'est anormal. Voilà. Mhm. Oui. Ok, d'abord. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, merci, merci. waaw euh, euh, mbokk bi moom mu ngi insister rek sa waay euh, suñu mbokk bi na nga def waaw bul ligne bi gaaw ah. bi mu gaaw voilà acca bokk yaa ngi ci direct bi merci. dafa am lu ma bëgg a participer si seen programme bi. waaw waaw waaw waaw. waaw waaye xam nga xam nga Sénégal ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a góorgóorlu xeexee. <laughs> waaw. ko Sénégal léegoo léegi africain yi yeneen dëkk yi dañ dee mere Sénégal parce que Sénégal lu nekk ak biir Sénégal lañ ko dee toogee foofu. waaw comme affaire yi coup d'état yi nii ñu bëri dañ dee xoolee Sénégal comme ay tànn. waaw. waaw ko Sénégal. Ah, soo xoolee bu Sékou Touré amoon problème ah, ak police ah problème bi yëpp biir Sénégal foofu la. because Sékou Touré waaw a Touré ah, dafa daawoon français pour français yi jéy na biir kon Conakry. waaw léegi léegi poli poli yi ñëwee fii poli yi mom français yi wax leen da ngeen war a fay seen indépendant. waaw léegi moom bu poli yi nekkee moom biir. Sénégal time yi Senghor fa la gars yi nekkoon foofu la gars yi doon traîner français yi foofu leen doon doon traîner pour gars yi dem attaque Sékou biir Guinée foofu noonu. waaw léegi moom problème bi léegi mu Sékou moom mu am information information bu Sékou Touré information bi Sékou mu leen doon mu leen doon xaar si la gars yi doon wane Sékou Touré mu def doon disappear léegi diggante boobu noonu ah pour attaque Sékou Touré Sékou Touré ah dafa amoon underground mujjee na foofu ñoom ñu ko ñëwoon pour attaque gars yi teewoon pon yooyu noonu yëpp fekkal ñu biir biir Sénégal la gars yi traîné ñeen ay nekkoon Gambie place bu ñoo wa tànji fa la gars yi doon traîné hmm. léegi bu la Sékou Touré waaw mbokk bi tey tey du waxu Sékou Touré dama ne tey du waxu Sékou Touré tey thème bi Mali la Mali problème Mali moo fi nekk non parce que parce que euh, euh, léegi émission bi jeex te pour dugg quoi tey ku dugg da ngay dugg direct ci Mali. voilà merci voilà nga merci. ok Oui, yàlla mbokk Allô. allo. oui oui Mike waaw nga ah, ça va ça va. sur, ce live Oui, tu en direct. Ah, ok, merci beaucoup. Je vous salue d'abord. Oui. Euh, tous mes frères avec mes frères panafricains, avec mes frères patriotes. Oui. Ok, à propos de ce qui se passe euh, euh, sur notre frère malien. Oui. Avant bon, qu'on on devrait comprendre que nous, les Africains, avec les patriotes. Oui. Euh, ce n'est pas trop longtemps que euh, ils ont dit que les soi-disant ans, ils ont aidé au nord du Mali. Oui. Est-ce qu'ils ont vu la CDAO faire une intervention au lieu, au lieu du Mali Non. Jamais. donc, la deuxième chose, on avait vu ce qui s'est passé au mois de mars au Sénégal. Oui. On avait perdu plus de 14 personnes. Oui. Qui avait vu là, CDAO fait une intervention sur les hommes perdus. Personne. Ok, bon, tant je suis très content, je suis très ravi de vous retrouver dans votre live. Oui, Qui es sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. Merci, my grand d'abord. Ok, bon, donc, dans cela, mm-hmm. prenons tous nos mains, on se donne des mains pour soutenir notre frère malien. Mm -hmm. Donc, la manière que Timmy Saba a fait une intervention ce matin. Oui. Mes frères maliens, je vous soutiens en plus, parce que vous tous que le 22 janvier prochain, nous tous on fait une forte mobilisation pour faire face avec les malhonnêtes. Ok. Face à bien dit les gens, il n'est pas des amis, il est seulement, il là seulement pour ses intérêts avec les pays. Oui. Mais on devrait savoir comment le président des Coréens, Jim Ki, a dit que nous les Africains, on devrait être unis. On ne doit pas laisser les, on doit pas laisser les Européens nous en train de nous manipuler, de faire ce qu'ils veulent en Afrique. Et tant qu'aucun Africain ne peut pas faire ce qu'il veut en Europe, Ça, c'est tellement vilain, c'est tellement bizarre. donc, nous, on sait bien que les têtes de liste de, euh, les têtes de liste de, de la CDAO, ce sont des manipulateurs des Français. Oui, euh, partagez, partagez le live et adhérez sur le plateau des patriotes africains. Mhm. Abonnez-vous, les gars, sur le plateau. je remercie tellement mes frères guinéens, je vous remercie tellement. Euh, Merci beaucoup. À travers l'article la oui. je l'ai tellement remercié. Merci. On vous donne un soutien national et l'international. En plus, je appelle toute la jeunesse nationale et l'international. On a qu'à faire une forte mobilisation pour faire face à ces devoirs là Merci. Merci, mon gars. Merci. Ok, je suis vraiment content. merci beaucoup. Allez, merci. Ok, merci. Merci beaucoup waouh oh t'es affaire du monde de xaw <laughs> quoi aujourd'hui le thème là euh, donc euh, euh, je vais voir le, plateau et puis je reviens tout de suite pour prendre les gars ça pète là ça chauffe allô les gars waouh mais boy affaire yi mu ngi ah. plateau bi ma ne ni ma épinglé si YouTube lolo tax tay sa appel yi takkarnaas waaye mais fu ni ne nii gars yi ngi waaye euh, ba appel plateau bi il faut mo ma delluwaat jël gars yi ah ngi insister après mo ñëw ci yéen. wa demal jël len jël len parce que numéro bi mang koy wax léegi émission xale. voilà gars yi ngi woote mbay mbay les gens appellent les gens appellent mbay coupel mbay coupel oui allo. oui allô. Allô, salam alaikum. Malaikum salam. Wa bi lay ziare waaye ñu ngi ziar na nga def waaye ça va sant yàlla Moussa Niang la maa bëggoon bokk ci waxtaan wi Moussa Niang yaa ngi si biir foo woote nii maa ngi lay woote Italie ok ngi biir tu es en face ok ngi di wax aussi ñu def manifestation pour Mali jënd sénégalais waaw na Sénégal yi yëpp génn na def manifestation jàppale Mali. parce que waruñoo mën a nangu France yi sax ñi defoon ci ci Sékou Touré bëgg koo def ci Kadhafi bëgg koo defaat encore ci Mali wen ci ñam seekal. waaw africain yi waruñoo nangu loolu. léegi nag ñun Afrique il faut ñu xam leen amuñu ay président bàyyi leen di wax ay président ay président amuñu Afrique. waaw ay sous préfet ñoo fa nekk. léegi la ca def mooy ne population bi na kii bi Seba wax na ko sonn boo xoolee Macky Sall. mais comme ça Sidy Lamine dimbalee bu mu falu lim njëkk a def mooy rey Sidy Lamine Niass la njëkk a rey rey teram waaw mu jógee foofu jàpp kii mi seeba mi nga xam billet benn billet cinq mille francs la taal mu génnee ko dëkk ba waaw mu faree foofu dàq Ousmane Sonko buggul Guy Marius Sagna buggul Abdou Karim Gueye Macky Sall képp koy révolté bugg la uh-huh. képp koo xam ne yow sa souveraineté moo la yital Macky Sall waaw li mu bëgg daal mooy classe maam Ngor Diassane ak ñoom maître ñi xam ñoom. waaw jox France ak ñoom ak ma non non non non foofu ma ñëw. Ah, ah. léegi la ci mooy africain nu jël seen mais xam amuñ ay président. Ah, léegi ñaan ngir yàlla sun sirin ñu ñu dimbali ñoom jëm. wax dëgg yàlla yooyu jigéen ñeen seetal mu ngeen fee nekk teexoon mu mur jaar kër sax Anta Diop Ousmane Sonko ñëw fay affaire góor jigéen jigéen ñi Macky Sall dévié na leen taali bi yëpp saaga sëriñ te léegi bu gënalu ñu ñoom mënuñoo génn ñu ne képp koo xam ne ne euh, am nga am nga am nga carte waa affaire parce que waa affaire ñoom ñooy dooleel góor jigéen waaw waaw te mooy dëgg dëgg waaw waaw sëriñ si lan la ñuy xaar ci def loolu lan la ñuy xaar ngi li premier bu liggéey di foo dara ana sa ko ngay bese laate rek kii kii lay jox li mu bëgg loolu ngay def waaw waaw waaw waaw insha allah waaw waaw ngir yàlla ñeneen ñi ñaan jom sëriñ soosu ñu taxaw dëkkal seen bopp ñu ne képp koo xam ne ne yor nga carte d'identité bala wooteel waa APR parce que ñoom ñooy majorité assemblée nationale kon bu leen kenn wooteel parce que buñ bëggoon affaire góor jigéen bi jeex ñu jàllale ko assemblée nationale ñu criminaliser ko waaye duñ ko def duñ ko def wax nga dëgg léegi ñu ñaan sëriñ si loolu man loolu ñaan sëriñ ngir yàlla nuñ génn taxaw ne ba kenn wooteel waa APR d'accord incha

Ah, sportif aussi boo xamante ne représenté naa Sénégal. waay fu bëri. ci niveau du sport quoi. waay voilà bisimilah ñu ngi lay. waaw ñu ngi lay xamal ni yaa en direct sur le plateau des patriotes africains du Sénégal. ok merci beaucoup. di rafetlu seen liggéey bu baax parce que yàgg naa leen suivre si seen. plateforme YouTube. Uh-huh. waaw rafetlu bu baax seen liggéey bi quoi. waay waaw bëggoon intervenir ci affaire situation Mali bi. Euh, parce que la ah, situation bu délicat la. Hmm. Eh, situation bo xamantene ne mun nañu dama eh, daanaka toutes les toutes les africains laa mun wax toute la jeunesse africaine dañ ci nar a intervenir. dañ ci nar taxaw bu baax parce que lo xamantene lu ñaaw la ci niveau boo xamante ne. Euh, euh, Sénégal taxaw na ko ci suñu président bo xamantene c'est un président un peu incapable. boo xamante c'est un dirigeant boo xamante ne sénégalais comme ni ñu ko waxee. Mhm. dañ ko fal mais bon par ñàkk pexe rek a tax ñu fal ko il a beaucoup de déçu le pays. oui il nous a décidé dans tous les fronts parce que li daal Mali nii vraiment ñun ñun peuple bi on est pas on accepte pas que loolu mu mun a am ci Afrique parce que yàgg nañu noot. Mhm. waaw tubaab bi yàgg nañu noot bu baax mais ñaan bépp bépp des ak des jeunes africains bu mu dans que ce soit dans l'art que ce soit dans le sport parce que man ci le sport là avec la yëngu. waaw tu vois euh, mais woote fépp ci àdduna bi pour nous soutenir Mali quoi pour nous manifester parce que tamit ay doomu sénégalais yaa ngi Mali et doomu sénégalais yaa ngi fépp ci àdduna bi. Mm-hmm. que situation buñ ko la famille, mel ni ñun war nañu Mali te loolu naruñ. ginnaaw duñ ko nangu suñu maam yi lu ñu liggéeyoon muy sengoor war na mali mu ñëw ba ci abdou diouf donc histoire bu mu nekk ni ñun ñoo ko nar a raxas ba mu set nuñ ko nar a raxasee parce que mënuñu xaar ba 2024 waa ji dañuy indil ay problème donc euh, yaakaar naa ni bépp patriote buy déglu ci kàddu waaw damay waxee ci ak émotion nag moo tax <laughs> accéléré waaw ma ah. xaw accéléré débat bi mais yaakaar naa on doit pas attendre pour que waa ji Mais dem 2024, voilà. non non non non non tout juste carrément. dans tous les bords parce il faut pas que ñu parce que daw politique situation grave 29 e siècle bu exact bi lu sportif muy artiste mu da nga sa présence parce que une situation vraiment. Ah, catastrophique Merci. merci intervention donc euh, vraiment c'est vraiment pertinent ñi plateau donc tout de suite là euh, les membres du plateau ils sont là allo gagnez, Allô. waaw waaw waaw ah, ah, nangu ziar waaw ah gis ngeen affaire yi moom tey moom da ngay defal ngay waaru quoi voilà waaw non c'est c'est normal nag gars yi foog dugg di exprimer wu am na ci solo ndax wax sa xalaat ci kaw Mali bi dafa metti te sénégalais yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy naxaru sénégalais yi ñu ngi euh, à côté au côté des des des populations euh, maliennes voilà ah. donc euh, loolu gars yi ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax Mali ak Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar Mali federation la won Modibo Keïta gis ngeen ne sama moko trahir waji genn génn mu ngoy wax Modou Mbaye mu ngoy koy ko sank donc loolu dafa nek mbir mo xamantene mënu ñu dem mais comme limay wax rek ñu japp ne xex bi fi mu ñu tollu liñ ci wara jangat ñun moy Macky Sall dafa bëgg taal Afrique. ndax taal Macky taal Mali taal Afrique la. Mm-hmm. taal Mali taal Afrique la kon nak ñun ñi liñu wara mëna jangat ci loolu moy Macky Sall bu élection locale yi weesoo. le vingt quatre na gars yi ko mu jël na Sénégal. waay loolu rek dama koy wax di ko répété waat na ci sénégalais yëpp bàyyi xel les panafricains ñi nekk ci diaspora bi bu ñuy manifester nañu dem ci ambassade du Sénégal yi yóbbaale dra ay ay ay ay drapeau Sénégal mettre ko en berne. Mhm. ki nga xamante ne ni mooy posteeru Macky Sall yi taal ko ndax moom rek mooy le mal du Sénégal actuellement mooy c'est le mal de l'Afrique. Mhm. moom la tubaab yi kon ñu jiital ko ci lii donc loolu foog gars ci xel. moom moo bëgg taal Mali moo bëgg a rey Mali. Mhm. ci moom la tubaab di jaar. donc mhm. moom ñun guuta mu ñu dugal war ñu ci tàbb yi Afrique ñu ci ay trahison. waaw loolu koy teg. c'est un pays voilà donc nag euh, foofu laay daaralee comme affaire bi moom sànq ba léegi moom. Euh, euh, priorité aux auditeurs donc liñ ci mën a yokkaat rek xam naa bu subaa dañuy ñëw dàbbaliwaat rek waaw nga bàyyi Émile. Euh, allah am na solo daa maa ngi jégalu Émile balaa muy jël. Ah. di wax ne ñi ngi sant ñëpp di këram ñëpp daa baax. mbir dina dem ba yegg foo xamante ne yow na nga xam ne moomatoo ko. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw président Ousmane Sonko looloo ko dal ba tey dugg na Ziguinchor sar sarale ba dugg Vélingara fi ñuy wax ak yéen nii Vélingara mi ngi toj. Ousmane Sonko mi ngi toj Vélingara. waaw waaw gis nañ mobilisation bi exceptionnelle génn nañ mobilisation bu yéeme boo xam ne à 22h 23h ba maximum 22h nga dugg nga dugg ci benn dëkk dëkk bi génn loolu message la. waaw. Euh, dem ba nekk ci xamal ne demal am na koy toll maanaam ngir yow moomu toll moo xam ne plateau bi loolu yàlla ko ci wane. voilà euh, Modou Mbaye Modou Mbaye. am na auditeur buy wootee coupeel foofu ñu jël ko. waaye allo mbokk mi waaw ah, jël ko jël ko ñoom ñooy waaw coupeel coupeel ma jël mbokk bi ma jël mbokk bi. bu oui allo allo grand daba wow waaw na nga def maa ngi lay ziar ya ci laaj bi direct maa ngi lay dama ok delloo naa la ziar wow waaw ah, li ngay def rafet na lool aha aha ya maa ngi lay maa ngi koy maa ngi koy rafetlu nag di kontaan ci yow fu ne da Euh, dama bëgg a waaw yaa ngi direct ñu ngi lay dégg mbokk bi ñu ngi lay dégg ñëpp a ngi lay waaw ñu ngi lay dégg mbokk bi ñu ngi lay dégg ñëpp a ngi yaa ngi en direct. allo waaw sa keneen tamit da ngay jéem a déplacé mbokk waaw. yaa waaw maa ngi lay dëgg maa ngi lay dëgg demal. ok ma ok man de maa ngi maa maa ngi sa émission bi nag donc ma ngi ciy bëgg a participer wu ci affaire yi émission bi. waaw waaw bisimilah. li ma gis ci Macky Sall de. waaw. lu mu nekk di def ci diggante ak Mali ak Mali ay Ok. ok. yaa ko waali ma. waaw. man maa ngi woote nii Gambie lay woote nii. waaw waaw waaw. waaw parce que man la yi rek ci biir Mali ah. leen comme ay Sénégal ay doomi sénégalais lañ. te ay Maliens ñun ñëpp ay panafricain lañ. bien. waaw lii lii lii dañ ci war a génn bi dafa war a génn. manifester wu leen ñaawul woon nag. waaw loolu ñu bëgg a Gambie jël Sénégal jël na Guinée Conakry jël euh, ñëpp jël même Gambie sa fii sa sa fii sa sa fii sa dañ ñëpp dañu na génn waaw en en tant que un pays frère ñun ñun mu nekk loo xamante ne ñun neen en tant que africain ngay nangu tubaab yi di lay nangoot di la def loo yenn yi ah mu nekk comme ay professeur ak ay enseignant vraiment ah. ñaaw na Macron di leen di jëm a jël leen Macron di leen di jël di leen di fooyee avec ça, on va donner du tout. C'est pas sérieux. mais Khalifa yéen est-ce que xam ngeen ne Mauritanie tëju. ok nga baalal ma tuuti quoi. waaw. parce que baalal ma tuuti. waaw waaw waaw. parce que euh, man ni ma ko gisee mooy daal. Mm-hmm. français comme perte ngi perte en Afrique. waaw. il faut ñu def tout possible. fa ñuy def tout possible pour ñu jéem a seet ni ñoo nu ñu ñoo ñun ñoo poussé pour jaxase ñu entre ñu suñ biir mun cee encore delluwaat amaat li ñu soxlawul. waaw te muy dëgg. loolu la ñu war a bañ. loolu la ñu war a bañ tey ñoom ñoom leader yi ñoom leader yi ñoom. waaw ñoom leader yi ñoom buñ ko nangoo ñun askan bi nañ ko bañ nañ ko xeex. ok. te ñooñu nag leader yi ñooñu ñun ñoo leen ko fa teg ñun ñoo ko fa tegee noonu lañ leen fa mën a génnee bañ xam ko. ok. waaw d' accord parce que suñu diggante ñu ak Mali par moo raw Macron ah suñu diggante ak Mali moo moo moo ëpp fuuf moo ëpp fuuf solo Macron ak Macky Sall. waaw dëgg nga wax de. parce que ñun ñun waaw ñun suñ suñ njaboot ñoo nekk Mali mais seen njaboot tamit Malien tamit seen njaboot ñoo nekk Sénégal. wax dëgg yàlla ki war a jël suñ frontière bi di ko di ko tëj diggante ñun Mali ak Sénégal. waaw soxor rek soxor rek bon rek. pour un seul personne. soxor rek bon rek bon a fay waaw dëgg <laughs> mbokk bi dëgg la euh, c'est vrai c'est vrai c'est ah. mhm. Mhm. dëgg la. dëgg la. ah moom mu ah. ngi foyee Sénégal ah. xoolal xoolal Farba mu ngi jël ay xaalis di ko battre moom xaalis ah, xaalis askan bi askan bi vingt cinq milliards yu mu sàcc rek. xaalis askan bi lay nii. ñoom ay Farba Ngom lan la du pousse pousse la waaw. doomi xaram bi yoroon puus pour doomi xaram boo xamante dafa yoroon puus yow du tëcciw dara waaw mun nañu wax rek bañ a xorom quoi lu ngay ñëw tey di wane di wane sa bopp di battre di battre ay xaalis lu xaalis waay waay waay waay ah la waay waay waay te moo doon battre xaalis bi rek nga dégg imbécile yi ndaw yi ñoom eh, maître bu ma ko ko jaar ak ñoom comment dirais-je xaw euh, waay paa boobu boo xamante ne que non vraiment daal da ngay waaw. merci mais nañ jàppale Sonko. incha allah incha allah. nañ jàppale Sonko rek jàppaleen ci rek yéen yéen yéen ñu ngi ci kaw rek incha allah incha allah incha allah. ñun non ñun même ñun fii sax même ñun fii en Gambia ñu ngi ci mobilisation ci mobilisation bu takku lañ nekk. merci taxaw leen de. waaw incha allah pour Sonko rek incha allah jërëjëf jërëjëf. waaw ok. man loolu laa am pour contribuer ma foofu sama xol bi daa jeex xamatuma li may wax la. waaw mais du yow rek ñëpp la quoi <laughs> merci donc mu ne ok mu nekk mbokk bi woote ni voilà mu depuis Gambia donc euh, ngeen gis ni euh, gars yi ma delluwaat daw rek jëm jëli sama gars yi quoi équipe bi parce que vraiment euh, tey moom appel bi moom auditeurs yi ñoom de vraiment tey ils ont battu le record waaw allo ma jël gars waaw. waa da baax li sant yàlla la. day wane ne sérieusement ñun tamit fi ñu jàpp foofu na ndax soo jàppee fu ñëpp wuyu si mooy jàpp nga fi baax. ok. Mhm. tey tey tey bu baax si mooy nu ñu fexee ba Macky Sall la jógee Sénégal ndax mu ñuy dugal ci ay duuba doona yoo xam ne kenn amul fa la ñuy jëmee. oui. ndax njëriñu njëriñ bi mooy.

li ma lay won ne yàlla mi ñu commencé joxe verdicts li nga xam ne mi ñu dox diggante euh, africains sax laa war a wax ndax occidentaux yi si noot bi nga xam ne ñu ngi noot Afrique depuis ay at ci jóge euh, si colonisation bi yegg si fii mu nekk nii euh, yàlla mi ñuy commencé may ndam te mi ngi koy jaarale si Mali. macha allah. Mm-hmm. ñuy ñuy ñuy wax malien rek dañuy jàpp ne suñu mbokk seen mbokk sénégalais yi. ci seen ginnaaw ñu euh, leen bàyyi dinañ ànd ak ñoom ba euh, saa yu yàlla defee jàmm incha allah. waaw waaw euh, nous sommes tous derrière. Euh, le peuple malien. may profité di tàgguwaale auditeurs yi ndax xam naa ne guddi na trop. waaw guddi na wax dëgg la parce que gars yi dem nañu. <laughs> waaw waaw waaw. may profité tàgguwaale auditeurs yi di leen naan di leen jaajëfal seen teewaay di leen jaajëfal wax dëgg na yàlla dégg nañ leen xam nañ ne ñoom xam nañ na mooy yitte Sénégal te Sénégal rek moo leen ñor. te xam nañ ne tamit Sénégal ak Mali benn bopp la waruñu ko mën a xat ñaar. waaw waaw vraiment. waaw di leen jaajëfal ñi leen di ci plateau africain du Sénégal via Facebook bi ak si si chaîne euh, YouTube bi TV di leen ziar di di leen gërëm di bàyyi Babacar. waaw Khalifa. waaw euh, ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziaraat ah, di rafetlu waxtaan bi mu doon waxtaan bu am solo. waaw tey tey gis nga ne ñaari la ñu jëloon mais benn thème rek moo téye euh, antenne bi quoi waaw mais suba dañuy dàmbali rek xam nga fi ñu toll nii li ci ëppoon solo wax nañu ko. ndax eh, li ñu bëgg rek mooy sénégalais conscient xam ne Macky Sall dafa bëgg a taal Sénégal. waaw Macky Sall moo bëgg a taal Afrique sax laay ya, wax. ndax Mali li nga xamante ne mooy koomu Sénégal bi Sénégal am njëriñ ci Mali loolu la bëgg a dagg te Mali am na yeneen buntu yu mu war a jaar. faale faalewul Sénégal. waaw kon loolu buñ ci taxawee nii ñun sénégalais dañuy comprendre ne Sénégal mu ngi yàqu ci Macky Sall la bëgg a jaar. moo tax ma ne élection yi locale bu ñu ci génnee le 23 jàmm le 24 bu ñu le temps wu euh, coalition Yewwi Askan Wi di feete. waaw daal nañ ko takkal ay bagages. d'accord kon loolu laay tàggu gars yi. di leen jox ci daje suba ñu jéem a tijjiwaat beneen beneen beneen beneen beneen beneen kii bi thème bi rek. waaw puusaat ci euh, mën a mën a matal affaire yi incha allah. d'accord et eh, am nañu appel Ziguinchor quoi. ma jël ko. waaw. waaw. Uh-huh. doon waxtaan bu am solo lii rek day wane ne plateau bi woote tey nekk ba Gambie uh-huh. macha allah ñii nekk ba Belgique ñii nekk ba Italie ñii nekk ba États-Unis macha ay Canada ak yooyu yëpp di leen gërëm ay Canada ak yëpp mm-hmm. kon day wane ne plateau bi c'est international ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di mm-hmm. wax ne que le combat continue comme ni nga ko waxee saay su nekk Free Mali di len ñaanal jamm te di ko seen di sante di gërëm Emil ak da khalifa bi fi nekkon di sante gaay ñi ñuy suivre tamit ci YouTube bi ñom ñëpp ñu ngi gis seen commentaire yi muy Mohamed Tambedou ñoom ñëpp Aïssatou euh Mohamed Kulim Dioum Tupac ñom ñëpp ñu ngi leen gis ñi commentaire ñu ngi leen sante di leen gërëm bu baax di wax ne que le combat continue ñu bayila la nga jël auditeur boobu tëj jaajëf. merci beaucoup alors donc mu euh, euh, l'équipe du plateau euh, ñoom ñëpp ñoo donc nous sommes vers la fin. ma jël rek mbokk mi nga xam ne mu ngi woote euh, dernier auditeur auditeur bi ma jël ko donc euh, tout de suite euh, mu mu dem ci émission bi ah ma jël ko dernier auditeur bi waaw ma jël ko quoi waaw oui ma jël dernier auditeur bi oui allo. oui yaa ngi en direct ci plateau bi.

waaw foofu moom ñàkkuma ci ci wax lu waaw ñu ngi lay déglu. Ah, mbokk bi dafa am problème connexion nag allo allo mbokk bi defe naa dafa am problème connexion quoi allo. waaw waaw waaw ya, waaw problème connexion la ñu ngi lay déglu jëm ci bu mali bi xaw na dégg na te ñëpp al koy naxarlu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw ndax euh, lu mali rek dal la ñun sénégal lu dal mali dal na waaw dal mali dal na tout mbooloo afrique de l'ouest hmm. ba tax na lii du problème mali kese hmm. lii la afrique la na ko afrique gëm ok téye mbirum maali ci mhm. mu def xeexu boppam. bañ koo bàyyal mu doon xeexu Malick kese. d'accord. li tax ma wax il est temps ñun africain il est temps ñun africain ñu bañ a doon marionnette kenn. ok. ñu moom suñu bopp ñu xeex ñun lu ñu jox ñun ñu koy ne woowee indépendance mais du indépendance des na ba tey. des na waaw ndax ah fii di doxee. Mhm. suñu indépendance amaguñu ko. ok lu des na. d'accord D'accord. Parce pas vrai. d'accord. parce que y compris mi Sénégal di Mali di Guinée di Côte d'Ivoire le plus de soxla di ko jébaane ci dëkku nasaraan alors que ñun ñu ko yar suñu jël nous ñun dem lañ ko ok. nañu jël benn exemple rek pourquoi pas dëkk bu nekk Afrique mënul yónni même bu dee sax mille ñu xool ndax situation Mali bii ñu nekkee nii du réglé wu. dana de. Mhm. mais man si ah, man kooku sama avis personnel la ni ci. Ziguinchor ànd naa ci. waaw ni ci Ziguinchor. lu muy def. koy def. waaw. jël li mu moom wala li nga moom di ko yóbbu si dëkkam di la bàyyi yow sa waa dëkk di torox russe di def loolu. non non non def dafa leen di naan am leen ma am di compris même ñun suñu gaz bii nii gaz bii nii ma wax la tey loo xamante ne ñu bëri xam nañ ko am na ñu ko jot a xam loolu tamit aussi suñu gaz bii nii c'est grâce à Russie suñu gaz bi niveau bi yëkkati ci sa euh, montagne Depi si di ki kaba pou moun neke Ministre des Afers Etranger Kup di moun chibi Mou kisal Yon di ki kaba pou moun negosye Sounye Afers ou Gaz Pase kakam la Monopoul kontrol gaz an Europe Bwis moun koyor Mou gise moun salan nasarani Europe fowou E yon dey bon yon wakèm moun elenda beti yo Gaz bi, gaye bin gwenye me mm-hmm. Men moun Tenire fowou bende konferans de presse immédiatement bu Sidiki paree conférence de presse boobu lu jëm ci gaz Sénégal bi gaz bi bu daan jar dërëm jar na ñaar fukk ngir russe moo koy yëkkati. Mhm. russe la naroon a gagné marché gaz pour exploiter suñu gazu Sénégal. waaw Macky Sall teg ci tànk jox ko ñoo xamante ni ñoo ko yelloowul. maire boobu mi nga diggante ak russe ba léegi. Mhm. bu dee bu ñu nag moo xam na ko moo doon coupe du monde bi ma

yow moomu nga bugg nekk benn marionnette ku tuuti ku mel ni Macron Macky Sall man dama xamul lan la ko Macron di jox ak lu ko Macron di def ak fu ko Macron tollu ba mu nangu ñun ñun il ko sa Sénégal mu ñuy jébané jël suñu ngor wéccé ko ak moom Macron man loolu moo ma ci jaaxal waaye bu soobee yàlla moom ci jeexatalam la nekk nii mais vraiment maa ngi encouragé peuple malien bi di leen ne dañu góorgóorlu Afrique yëpp a ngi seen gannaaw. ok bu soobee yàlla xeex bi doonul xeexu Mali kese xeexu Afrique la ci boppam. d' accord d' accord mais léegi yow Ziguinchor euh, lan nga ñu mën a wax ci Ziguinchor tey actuellement fu mu ne ñu tëj foofu. Ziguinchor actuellement nii ma la koy waxee lan rek moo fi nekk bu président Ousmane Sonko di mënee à cent pour cent te fu mu dem actuellement nii may wax ak yoon yi yónnee naa la benn vidéo bi nga xamante ne mi ngi séju guddi bii nii. waaw maa ngi koy gis en direct maa ngi koy seetaan ci beneen euh, euh, euh, ordinateur bi ah. d'abord bu lépp jaare ci yoon. Hmm. lépp yoon. Hmm. nit ñi teel a génne voté massivement. Hmm. balaa ñuy naan dix bu ci yàlla àndee. Yewwi Askan Wi dina remporter élection yi. waaw mais mais waaw waaw mais problème bi mooy dañu am affaire ay nit yoo xam ne ñoom musuñu gagné élection comme musuñu yoonal ay jalkati kat lañu ay sàcckat lañu quoi donc yéen foofu il faut nga am taxawaay ak vigilance ñi war a siéger mandataires yi ci bureau yi ak yooyu il faut ñu taxaw. matukaay lépp luy matukaay nii may wax ak yoon yi nii may wax ak yoon yi nii nii nii nii nii maa ngi doog a jóge ci. këru coordonnateur communal ku ñuy compris ku tudd Seydou Mandia. waaw. nous allons tout faire nu ñuy sécuriser suñu bureau de vote ak suñu matériel yi li leen di yëgal ne suñu militants yi nañu teel a jógee dem teel a ndax teel a ñibbi. waaw. loolu ñu ngi ciy liggéey guddi te ñu ngi dugg ci kër yi di def porte à porte du xamal militants yi ak sympathisants naka la ñuy voté. ak naka la ñuy teelee yow dem voté ak nañu góorgóorlu dem retiré ci seen yi carte carte yaa nga fa am pagaay ndaam ñu ngi koy ji ñun dañ leen soññ pour ñu dem jëlaat encore seen yi carte waaw mais mais jeunesse bi dañu waaw demee vers vingt deux heures dina tenir benn point de presse boo xamante ne dina rencontrer tous les bailleurs ñii di def ci ñii ci nekk ci wàllu commerce ak ñi ci nekk ci journaliste yi. dinañ mhm. ko posé ak question tontu leen ci jàmm ak salaam te bu ci yàlla àndee àdduna bi yëpp a koy dégg lim leen di wax day leer nañ nit guddi ni bëccëg di ci am lenn luñ ci naataable. waaw mais gis nga ni euh, euh, Doudou Ka lënkoo na ak Abdoulaye Balde. Ah. Benoît Sambou mi ngi ak Seydou Sané. Uh-huh. te eh, Bignona moma lami keta mi ngi fële Oben train mi ngi faire. mais yow. Uh-huh. yow rien eh, nga me jangat parce que ñun il faut que xam parce que gis nañ leen quoi ñom te dégluñu nañ leen déglu nañu Doudou Ka ak nous eh, Baldé ñu déglu Benoît ak Seydou Sall mais ñom ñep kenn amu ci programme mais est-ce que am nañ conscience pour xamné actuellement politique dafa tollu fi nga programme de doxal. waaye du ay lay ay fen rek. li nga wax ni question bu ma neex nga ma posé nii bien ma balaa président Ousmane Sonko di fi yegg si am na débat yu ñu doon organiser si ay rajo yu fi nekk mi Kasumé yi. waaw muy Zik FM muy Génération FM tout le temps saa yu ñu toggee débat waaye population Ziguinchor waaye xamal la ñuy laaj. Hmm. ñun képp ku war a voté da nga ñuy indil programme du gis nga lu yàlla def. yàlla àttee leen bëccëgu ndar kàmb ak Ousmane Sonko. waaw Doudou Ka amul fu muy jëm amul wéerukaay ñàkk am vision Doudou Ka kenn xamu ko moo tax ñu xam ko simple simple directeur AIBD la mais Doudou Ka du nit boo xamante ni liggéey na pour askanam wala liggéey na pour Ziguinchor ça ne veut pas dire que bu di may ay jàkk mbir wala di jox ay hôpitaux hôpitaux. Euh, te ambulance loolu mooy tax déedéet loolu mooy fan leen dañ nga ne joxal peuple population bi liy def impact si ñoom. mais ambulance bi. Mm-hmm. ani ambulance yooyu saa bi kenn gisu ko Bonuwa personnel dana ko daal Bonuwa ñun xamuñu ko fii Seydou politiquement moom dafa woor Ablaye Baldé donc ñoom ñii seen démb boobu sax dañoo déggowul d' abord ñun côté boobu ñun weesu lañ fa ñun lu ñu soxla mooy suñu programme bu ñu teg waa Ziguinchor waaye ñi gëm nañ ko. xam nañu gis nañu ñun fu ñu jëm ak ñoom loolu doy na sakkal barke. waaw mais di dal voilà donc waaw mais jigéen ñi jigéen ñi ma gis noonu est-ce que jigéen ñi Ziguinchor yi comprendre nañu lan mooy politique lan mooy enjeu bi ak jeunesse su Ziguinchor bi ak jànq yi ah jeunesse bi ah ak jigéen ñi est-ce que ñoom comprendre nañu lan mooy enjeu waaw ana su ñi nga xamante ni ñoo ma doon soññ sax di ma laaj ne ma dañu bëgg nga xamal ñu nu ñuy def boo voté ñu mun a fal Ousmane Sonko nii lañ ma ko waxee nii du benn jigéen mi mag mi ndaw mu mel ni école laa nekk ak ñoom di leen ko répété donc même les femmes am femmes jigéen ñi nga xamante ni ñoom xëy mën naa ne buy métti tuuti lañ ci yëg mais tey ñoom ñooy gën di coono ko jigi góor yi sax ñoom ñoo la gën xam ni fu mu toll nii kenn yelloowul doxalinu Casamance wala kenn yelloowul yoro mairie Casamance ku dul Ousmane Sonko y compris Ziguinchor wala fépp fu Casamance nekk nitu yeewi askan bi géré ko que mu doon nitu gouvernement bi ñoom et d'ailleurs dina sànnil carte bu yomal xëy amee suñu borom daf leen laaj parce que coup ku euh, euh, voilà parce que nous, nous, nous validé assemblée nationale Nous, nous validé assemblée nationale coalition Ben Bok nous Bok nous député maire député maire nous nous ñoo loi de criminalisation euh, góor homosexuel du du du avons validé homosexuel képp ku woote liste Benno Bokk Yaakaar muy fépp ci Sénégal yaa ngi baakaar parce que yaa ngi voté góor jigéen ni yaa ngi dëgëral góor jigéen ni te yoo xam ngeen góor jigéen baaxul yàlla xara xaraam na ci lislaam góor jigéen fu mu teg tànkam nga teg fa mu teggi nga teg fa sa tànk ñeent fukki guddi boo jaamoo yàlla yàlla du ko nangu donc góor jigéen ak njaaloo ak bokkaale moom la yàlla gën a xaraamal donc il faut que sénégalais xam yooyu citoyen sénégalais xam ni

benn kilifa taxaw na nee na la képp ku leen votal bu yoomal xiyaame bu ñuy attee góor jigéen yàlla da la ciy boole waale si ñoom ndax yow may nga leen baat bi ñi nangu lor askan bi waaw ñoom daganal lii ñoom ñooy doolal góor jigéen yi ñoom ñooy doolal borom ñaaru tur yi ñoom ñooy doolal lesbiennes yi ndax loolu warul mën a nekk dama ba ñu war a yóbbu assemblée fuñ ko ko waxee foofu lañ ko war a nangu ñoom boo gisee ñu dem lu ko fii lan na moo tax ñu ne financièrement da ngay am problème boobu ñu fàtte yàlla gannaaw ñoom lépp lu ñuy def jëlaluñ ci yàlla seen intérêt crypto personnel lañ koy def aywa ku leen fete nag nga loru mais hmm. yaakaaruma ne jigéen sor waaye ou bien sénégalais seen xel ñàkk na weesu loolu bañ a xool lu ñu jógee ñu xoolaat nar a découvrir benn page bu utee ak page ba woon ba ñu nekkoon mooy coono bu ñu nekkoon na ñun la ñuy ñaan yàlla képp kuy voté ay la yow na nga xool ku ngay sandil sa carte. ci Ziguinchor ak Bignona. ah. waaw ma ne ci Ziguinchor ak Bignona. mais Casamance bi partout la. partout de Ziguinchor ak Bignona kese Casamance ci boobu. coalition Yewwi Askan bi rek. Casamance ci boobu la parce bulletin bi am bop fas kenn dum ko sandi bum ko jël bulletin bop fas mom te mu chocolat sandi leen ko ci xaj baxul koku gor jigéen ni la homosexuel waaw. way ah. wa léegi euh, nga daaneel comme ça ñu tëj il fait minuit 24 quatre hein donc. vraiment vraiment di euh, dugg ci plateau bi di tenir ben débat bu neex ak yéen vraiment ñu bax ngeen. da mm. damay ñaan yalla seen plateau bi def. chaque jour que yàlla def ko am ci mujj gu rafet yéen ñëpp vraiment plateau bi amuñu lenn ñuy def lu dul di leen waaw mais ñun ñi fu ñuy amee baat di wax ak waa diaspora yi compris. ok suba suba suba bu dee bu dee mun nañu am le coordonnateur communal suba bu ñu ko munee am coordonnateur communal bi wala euh, ci plateau bi en direct bu fekkee mën nañ ko am suba émission bi mu ngi commencé euh, vingt une heure fii vingt euh, une heure trente.

ok dafa nekk euh, di waajal inauguration bu bi chaise bu bi. waa chaise. voilà chaise mais disponible rek. d' accord mooy chaise bu bi chaise parcelle bu bi. voilà donc merci ñi jël benn mbokk mi ngi ci ligne bi ñi jël ko. ok di la sant di la gërëm Abdou euh, Mané mu nekk euh, euh, responsable politique PASTEF di coalition Yewwi Askan ci Ziguinchor merci beaucoup Abdou. Boyalo waaw. damaa allo. oui Cheikh na nga def ñu ngi lay ziar. ça va yéen a ngi si jàmm. waaw ngi si yaa ngi en direct ci plateau bi. ah d' accord d' accord d' accord xaw ma woon ci plateau bi directement laa nekk nii d' accord maa ngi doon suivre sànq après ma am ku ma doon waxal. waaw waaw waaw waaw yaa ngi ci plateau bi les patriotes africains du Sénégal ñu ngi lay ziar yaay dernier auditeur auditeur bi. ah d' accord kon ñu ngi leen di ziar di jël ñëpp seen wàccuwaay pourtant soo ba léegi maa doon signalé pour dugg mais maa ngi jéggalu ci gëj a dugg bi maa ngi nuyu mbokk yëpp aussi ñi fi teew. ak ñi fi mm-hmm. teewul aussi. waaw. d' accord je je pense que début man bi ma doon mujj a seetaan ñu ngi doon wax sur le Mali quoi. waaw sur le Mali. waaw mooy thème tey. waaw xam nga ñun président bi ñu am nii. Mm-hmm. c'est que nit ñi dañoo xamul ni yàlla day maye ci façon bu ne moom moom moom dafa am sens nit dina am sens pour nekk président mais du am xam-xam bi yàlla war naa ci alxuraan képp kuy xool Macky Sall di nga xam ne amul xam-xam pour yor réew loolu moom na ñëpp seetlu rek ku seetlu di nga gis Macky Sall amul xam-xamu yor réew mm-hmm. comprendre nga léegi nag daf ci nekk ni moom fi ne nii pour pour pour faire plaisir à Macron parce que sànq bi may bëgg def capture d'écran discours Macron bi muy bi comment dirais-je encore di di di féliciter la CDAO et l'Union africaine. waaw dama halluciné wu sax dama jaxlé ci bopam yaa ngi dégg hmm. Macron lu ci yoonam ci Union africaine ak ak ak ak euh, la CDAO hmm. ça veut dire que ni mom mom mom mo sante Ouattara ak Macky Sall pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu plier ay ñu def ay sanctions contre le Mali. waaw en l'occurrence Macky Sall parce que c'est Macky Sall qui a pris la présidence de l'Union africaine. Hmm. yaa ngi dégg kon Macky Sall comme mais il se que le moment venu Macron militairement ou financièrement pour mu peuple soit pour troisième mandat soit pour quoi que ce soit mais loolu il se trompe d'époque les temps ont changé et rien ne sera plus comme avant bu barricade woo ci quatre yooyu il se trompe vraiment pour moi il se trompe d'époque waay waay Mali mérité wuñ lii. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. France mënul bu fekkee ay intérêt am dañoo vacillé wu au niveau du Mali moom c'est son problème mais du Macky Sall moom mooy en tant que africain ku ko jeex ba jeex xam ne am na ay bokk Mali mais nag moom. il se dit que ni bon boo nekkee yenn soo nekke ci yenn loge maçonnique yi ak yenn yenn secte yi boo ci nekkee moom da nga naan ñi le chien aboie la caravane passe bàyyi leen c'est c'est lii coowu ñaari fan la coowu ñetti fan la coowu une semaine la coowu un mois la mu jàll ñu nekk ci leneen parce que ñoom noonu la ñuy raisonner tout en disant que ni ëllëg kenn du ñu mënal dara. africains yi dañoo bëri yërmande en l'occurrence les sénégalais dañoo bëri yërmande ces gens là il faut que plainte yu dugg partout dans le monde waxon naa ko fi def naa ko waxaat te buñ xamul ne amul lu leen di xaar ëllëg du ñu dellu gannaaw ils vont faire de mal en pire yaa ngi dégg mhm. donc ces gens là il faut il faut il faut ñu def loo xam ni loolu wóor ni un ces quatre matin ils seront traduits dans les dans les tribunaux internationaux waaw pour man pour euh, internationaux ci pour man loolu mooy loolu mooy loolu mooy li nga xam ne man noonu noonu laa ko xalaatee. parce que trop trop quand même c'est trop xam nga. pour un oui pour un non si vous devez obéir à votre chef faites-le autrement mais pas pour assujettir la population malienne qui n'ont rien à voir sur ce bataille-là. mais ñoom amuñ ci dara. oui mais le Sénégal aussi paye les pots cassés parce que euh, euh, presque bêtement on perd 200 milliards comme ça euh, le système commerce bi foofu yëpp yàq na yëpp. ah yow kay xoolal léegi man xam nga man maa ngi ci business boobu daanaka. waaw comprendre nga import export dama koy def comprendre nga. waaw léegi nag la ma sama petit frère bi ne ma oto yi dootul demati direction Mali pour pour mu wax la rek ne xam naa maa ngi ci loolu pour ne pas développer. waaw may may attaqué bu foofu dama la bëgg a waxal ni la. pooru Sénégal bi malien yi buñ ci génnee seen loxo pool bi suuf mais comme ñun am daf moo ñu jiite ak koo xam ne c'est un ignorant il préfère xam nga être sous la tutelle sous la botte de euh, Macron. moo tax muy def yi fi dofam yi nii c' est que Macky Sall duy calculer sax naa la yàlla ma yàlla baal je n'ai rien contre les Mongols mais daf boo xam ne lay réfléchit pas même me yi ñoo ëpp ëpp ëpp ëpp xam-xam Macky Sall Macky Sall amul amul billahi dafa am sens moom sa gëmu ko woon gisoo au préalable auparavant waa PDS dañ ñu woon kii nekkul suñu président loolu da koo naqari woon léegi nag pour mu légiférer wax na ni man je suis le président de la république il a fallu que muy def yenn yi di def yenn yi di def yenn yi mais matul président matul njiit amul xam-xam bi lii ma la wax nag lu ñuy gën di def nit ñi dañ ko gis parce que Alassane Ouattara pour rien au monde ah du jël ay ay ay du daane économie bi li nga xam ni mooy port port de d'Abidjan boobu nga xam ni

tey sax nga ne ko mënta nekk day daane sama réew comprendre nga. waay même bu dee politique ou financièrement da laa dig dara ou bien demee soo waree nekk troisième mandat daf lay baareel Sonko wala mu baareel la ma Samba wala mu baareel la ma Demba te il n'ont il n'ont qu'à faire parce que paraît-il que ni. Macron même daf leen ni bu leen exclure même opération militaire ji nga si suñ aventuré woo ba def opération militaire dinañ regretter ñoom lan moo tax ñu judd ak seen askan seen askan yëpp seen descendant yëpp lan moo tax ñu judd ñoom. mais mais Assimi Assimi Goïta lancé na leen ultimatum nee na Nations Unies ONU. ONU na jëndee. na jëndee soldats yi fii nañu jëndee yëpp soldats yi dañuy jënd quoi ci territoire Mali. ils n'ont qu'à sortir. waaw wax na leen ko quoi. Assimi Goïta daf leen lancé ñoom ñëpp la wax na ONU dégagé tous les soldats là ci biir territoire de Mali et français fu ñu occupé ñoom ñëpp nañ fi jóge képp kuy soldat étranger nañ jóge Mali wax na leen ko de. je suis vraiment content je suis content de ça. et, lui-même il n'a qu'à mettre terme sur l'affaire organisation caaxaan yi nga xam c'est des des congrégats de non. de de, de lesbiennes gi ay franc-maçon ay góor jigéen. ils sont parce que le Mali comme... le Mali est dans le processus de lancer sa propre monnaie le wari. très bien et il n'a qu'à démissionner des structures de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et ay président lañ modifier constitution bi di def ay troisième mandat ak di def ana CEDEAO ana ah, fan la bu li euh, alors que si quelqu'un euh, prend les armes pour rectifier Réumi, pour teg réew comme ñun amuñ ay colonel ak généraux voilà nekkuñ ay góor yoo xam ne war nañoo mën a jël réew mi sax jëm ko teg ci yoon ñun ñu ngi jéem a teg seen réew mi ci yoon. xam nga à ah, quand kañ la ñuy nekk sous la domination sous la botte des des occidentaux en l'occurrence les français il faut que ça s'arrête quand même ah trop c'est trop. Ouais. trop c'est trop. Ouais. trop c'est trop. et puis nous devons soutenir la diaspora malienne ñu porte xeex bi en l'occurrence la population malienne aussi ñu jàppale leen ba nga xam ne xeex bi ñoom duñ ci wéet. waaw bah, vraiment nous sommes derrière le Mali quoi franchement nous le soutenons. nous compatissons. Que ça soit financièrement, que ça soit des, des dépenses et tout et tout, quoi. Ouais, ah, mhm. parce que ñun président bi ñu amoon tout sa ñun tout yor. yor nañ lépp mais ñun yoruñ réew. Mhm. xam nga. yoruñ mhm. yoruñ réew te sa waaye réew mi àttanu ko maa la ma wax nag te sal Sall foofu lay daanelee xam naa balaa may monopoliser parole bi. gis nga Macky Sall ku am xam-xam du du bugg liggéey ak yow Mimi Touré. malgré loko ko munta bañ bañ amna xam-xam Abdoul mbay loko bañ bañ bañ amna xam-xam barke alcorane dañuy wax vo vocabulaire bo xam Macky Sall du ko xam motax du bëgg ko am xam-xam jege ko xam nga ni bo ñëwé jël suñu vice président suñu premier vice président à l'assemblée nationale ak Sénégal ñu bëré borom xam-xam nga dem def ko Abdou mbaw moy yàq nga lépp. wa nga dëgg de un tànk. a ah, waxal da ay xoolal rek ak Sénégal bu mu bëree ay kànk ni mu ay ja ay ay ay ñoom xam-xam nga dem jël suñu premier vice président assemblée nationale dem def ko Abdou Mbow. non koo xam ne barki dem lañ laa laaj ay eurobond xamoo sax lan mooy eurobond. xamoo ko. ngay ngay laal sa kanam laal sa gémmiñ ci partout partout ah xamoo luy eurobond ñu lay def vice président assemblée nationale non mais attends nous sommes yoruñu réew daal yoruñu réew yoruñu réew. vraiment du réew du tout sauf un pays. moi je pense que lii quoi. il faut l'appeler autrement mais mon lii du réew. du quoi je m'arrête là Merci beaucoup. en tout cas incha on va continuer le combat. parce que il faut que il faut il faut que un président là parce que les temps ont changé. l'ère du numérique est venue. chacun a sa télé dans sa poche rien ne sera pris avant. Maintenant, ce n'est que nous avons nous 4 millions. Il faut que nous avons des populations avant. Et mais même, un de ces 4 matins, quand nous avons des cas, nous avons des présidents. Nous avons des personnes. Parce qu'il faut, il faut que la peur change de camp. Nous avons des peuples, nous mais nous avons des titres. Par tous les moyens, par kamikaze, les petits.

donc euh, merci mu nekkoon Cheikh Mbake, moo dernier auditeur euh, bi donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñi nga ne bi ziar di leen donc euh, moom Cheikh Mbake, donc di ko Moussa donc ak Moussa ñu ngi koy hein, merci beaucoup ci émission bi euh, Diallo Ali euh, ngi sant merci ci émission bi nga Nia Nia la Casamance ñu ziar merci di leen jaajëfal Kalaban, euh, Kalaban Samunun Nia, tamit ñu ngi lay sant di merci ci émission bi Émile Jean Ndiaye merci beaucoup